koy jaajëfal bu baax a baax soxna Faty ci euh, xibaar yi euh, Faty ñu ngi la ziar. waa ji Pape ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax di dellu di ziar di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu euh, bàyyi xel yor ëtt bi di yor yoru Kajoor ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen ñaanal yenduk jàmm. da nga def ak coono yi mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla de ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. man daal xam naa ni dina tàmm di su ma yeewootee di ndekkee kii bañ dugub. ah bañ a am na marché ba. Hmm. waaw. maa hmm, seet nga ko koy jaay. waaw waaw ko koy jaay de ah euh, xaritu Max Maguette la de. Max meen waaw léegi nag bu dee wóolu nga Max rek. Hmm, ah waaw bu dee ah xaritu Max Maguette de moom macha <laughs> ma siy ah, en tout cas bëgg naa ko lool. man de duma ko romb moom. waaw mhm. ah, benn bis laa toog place Max rek gis mu ko man ah waaye yow sëñ bi foo jëlee li man mooy kii kii moo koy jaay. waaw daal vraiment daal. boo fa ci xëy suba gi ne. waaw ah, waaye daal boo xëyatee xaaral bu kañ suba di ñëw ah. déedéet suba la àjjuma. kon altine. waaw. waaw incha allah waaw altine boo xëy indil ma ci. dëgg yàlla daal xam naa ne benn dugub daal. bu ma ko doon am. Hmm, am na solo de parce que ah? neex waaw man même mburu dugub yi ñu doon wax sax mburu dugub. Hmm. noonu la ma neexee woon. ah mais parce que parce que du farine kese. waaw xam nga farine bii daanaka lu bari suñu suñuy problème wér gu yaram moo ñu ko yóbbee. waaw yàlla ndax farine moom dafa am ñoo xam ne sax carrément dañoo am feebar boo xam ne mënuñu koo lekk. xëy na hmm. bariwul fii nag ci suñuy réew mais am na ñoo xam ne euh, feebar boobu dañoo supporté wul gluten bi nekk ci farine bi. Mm. mooy li nga xam ne mooy tax farine bi di jàpp di liyewu. Mm, donc loolu bu ñu ko bu ñu ko jëfandikoo day indi ci ñoom jafe-jafe yu rëy ci wàllu seen wér-gu-yaram. Mm. mais jafe-jafe yooyu la lay indil même yow da nga xëy na da nga wér amoo problème de santé moo tax doo ko yëg. waaw mais li ci mënti am moom mburu mu bari moom ci biir yaram moom euh, mënut a nekk lu baax mooy indi seere yeeg problème tract digestif doo mën a. doo mën a digérer bu baax li ngay lekk yooyu yëpp di ballonné ah. daf ñu koy yóbbee parce que nag bu ñu gisee loo xam ne dugub lañ ko defaree dugub suñu xarit wax dëgg yàlla dañ koy dañ koy rafetlu daal surtout mburum yi wax dëgg yàlla amoon na initiative yoo xamante ne boulanger yi ñu ngi ko doon def vraiment bëgg a dugal mi bëgg dugal euh, dugub ji ci biir mburu mi te loolu dafa am solo a mm, mooy dina wàññi farine bi ngay jël tuuti mm. mais ñu dem ba ci biir daal mbir mi xamul fu mu fu mu féete ah. nu mu mujjee waaye daal xam naa ne daal quelques boulangers daal ñoom ñoo koy def ba léegi te loolu fàtte sax dina dimbali waale suñu mbokk baykat yi ñoom ñi nga xam ni dugub la ñuy bay bien sûr réew mi dugub ak gerte demoon nañ sax ba ñebbe ji sax dugaloon nañ ko ci biir ah waay baax na waay bi ma mujjee dem man ñebbe lañ jël dugal ko ci biir hmm. mais ñebbe ji dañ koo xaw a mel ku ko xaw a brisé tuuti rek mu xaw a ngay sentir ay ay mokk yu ndaw kii yu ndaw waa ci biir ci biir mburu mi waaw mu nekk lu neex tamit ah. ah. mburu bu neex la aussi mais mburu mburu eh, dugub bi moom dara dàqalu ma ko man macha mhm, mhm. eh, vraiment daal xam ni bañ dugub wala fonde mhm. bu ñu mënoon suba daal di am di ko am ah. ah loolu dara gënu ko waay waaw parce que man xamante bi de mën nañ koo togg sunu kër nag dañoo xaw a tayal nag hmm. waaw waaw waaw loolu la yoon dem dem sa euh, machine ba wal sa yàq sa dugub ba mu set dem ca machine ba daal di koy wal ba mu mokk ñëw defar sa defar sa araw bu baax dugal sa frigo mais Fatick xaaral boo xëyee boo xëyee nga defar sa fonde. Fatick sax c'est une compliqué wul. c'est occasion ma lancer appel. Ah. ci ñi may déglu surtout nag am na ci ko xam moom war naa defar fonde ma koy ndékkee. ah waaw waaw waaw kooku moom <laughs> waaw maa ngi lancé boo bala ngaa waaj di nga fekk kër ah. kër ga am sunguf. Euh, ñu ngi may message nii. Ah. di ma wax ni euh, waaw euh, ndeysaan ndeysaan Fatima nee na. Hmm. déedéet Max Maguette nee hmm. waaye moom de lii mu wax moom wax dëgg yàlla moom di waxi dara. Hmm. nee dina envoyé benn dugub bi waaw loolu kay alhamdulilah. waaw ah. lu tax nga ne du waxi dara. déet par poste. poste ah. ay fan. poste mooy fan. ah wax dëgg yàlla. Max leeraloon bu <laughs> yow yaay poste yow mu yaay poste. su fekkee ah. <laughs> yow yaay poste. <laughs> joxal ma bañ a dugg borom Jakarta mu ñëw ma ko léegi. fii dara waaw ah, ndax eh, xam naa ne na bàyyi ba altine. kat yi mu jox la ko yow. ma yow eh, yow yow kii Fatima. Mm. Eh, xam nga xam nga tamit man ñaari fan yi damay xëy di taayal. te xaw ma lu mu nag. ñeenti bañ rek baax na. waaw vraiment ñaari fan yi damay xëy di taayal ñeenti bañ baax na waaw. yow yow ñaar man ñaar wala. Euh, déedéet man moom ñeenti yi <laughs> bool ay ci bi golf am na li gënoon fas ci xibaar yi ginnaaw point du jour. waaw li ñu indi woon point du jour peut-être euh, ñu euh, njëkkee si li nga xamante ne moom moo di point du jour comme ni nga ko waxee pour wax ne nag tey moom mbir mi xaw naa wulee ñaay comme ni ko olof di waxee. pour dire que yi dafa xaw a bari tey ndax test yi ñu def tollu na si ñaari ju nekk ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak bu ñu demee ba ci cëppandaw la ñetti téeméer ak ñeenti ñoom ñoo ci positif muy lim boo xam ne dañ koy am parewul euh, donc taux de positivité bi 13 virgule 44 pour cent am na ci téeméer ak ñeent ci cas contact suivi am na itam ñaari téeméer yoo xam ne transmission communautaire la ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk tamit nee nañu war nañ ci juróom fukk ak ñett ñoom ñooy cas yi fukk ak ñett ñoom ñooy ñi ci génn àddina kon Sénégal tey mu ngi toll ci euh, ñaar fukki junneeg juróom yu toftal juróom-ñaari téeméer ak fukk ak benn ci ay cas yu positif ci lim boobu am na ci lu toll si ñaar fukki junneeg benn yu toftal ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom am na itam juróom benn téeméer fukk ak yoo xam ne génn nañu àddina kon tey jii ñi ñuy jël en charge ñu ngi toll si ñetti euh, téeméer ak ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak benn yoo xamante ni ñu ngi leen di jël en charge waa ji pap donc euh, beneen bi bu ñu fa jógee itam ñëw rek si li nga xamante ne moom moo di euh, Mbour 3 extension mbur Mbour 4 extension autant pour mois ndaw ñi nga xamante ne ñu ngi doon euh, ñu ngi doon manifester ci bi ñuy toj kër yi ba ñu jàppoon ci am na ci nag juróom-benn juróom-benn yi ñoom ñëpp ñu ngi leen doon àtte dem donc si àtte bi nag euh, ñeent ñi la ñu jël tëj leen wala boog peine bi nga xam ne moom lañu leen teg moom moo di ñetti weer avec sursis ñetti weer yoo xamante ne duñ ko tëdd donc peine d'avertissement lañ koy tuddee. loo xamante ne pour beneen yoon bu amatee ñu bañ koo def donc ñaar ñi ci des dañ leen a relaxé parce que ñoom nee nañ daal dara leerul ci li nga xam ne moom la ñu am ci information ci ñoom donc loolu dégg ngeen maître Faty di ko expliquer di wax ne euh, loolu sax peine bu jaadu la boo xamante ne mën nañ ko dégg parce que ñoom du ñu tëdd beneen bi aussi ñëw nañu ci immeuble boo xamante ne bi ca xodd ba nekk ci commune bu Kër Moussa dafa daanu immeuble R plus 3 bi koy tabax nag euh, wax nañ tur wi 3 Euh, entreprise boobu nag euh, daanaka moom moo yoroon liggéey bi immeuble bi R plus bi muy daanu euh, daanaka am na ay maçon yu nekk ci biir doon liggéey mu jékki-jékki rek effondré wu effondrement bu bu doy war sax bu xaw a yéeme boo xamante ne ba léegi ñu ngi wër ji nga xam ne ñoom ñooy victimes yi nekk ci biir ba xam amul ñu des ci biir décombres yi parce que dañuy naqaree génnee nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fekkee woon ñu ngi doon jéem ak seen moyen du bord mën a génnee nit ñi mais dem ba ci biir xam ne lii loxo mënu ci dara kon dañuy war a indi ay engins pour ñu mën ko génne euh, si la ñu woowee ñi nga xamante ni ñoom ñoo di sapeur yeeg ñu ni mel ñu ñëw ngir def liggéey boobu génnee leen ca foofa ñu nekk donc ñu wax ni am na si ñaar ñoo xam ne génne nañ ci àddina am na sax ñu ne benn chiffre bi moom du ma ci appesantir trop mais am na tamit ay blessé yoo xamante ne nag blessé grave yu bare yoo xamante ne euh, lim nañ leen ci itam donc ñëw nañu aussi ci li nga xamante ne moom moo di jaari euh, sow di ki ñuy wax meilleur élève du Sénégal nga xam ne dafa réeroon Euh, lu toll si ñaar fukki fan ñu koy wër nañu koo gis teg ko bët euh, ndekete euh, dafa nekk fi nga xamante ne moom moo di Bruxelles ca Belgique fa la dem daal dafay nekk daal kenn xamul lam fa nekkee woon wax dëgg yàlla waaye nag buñ ko mujjee retrouver daal woon nañu autorité sénégalaise yi teg ko ci seen loxo démb nag ki nga xamante ne moom moo di parrain di ministre Serigne mbay Thiam ñëw na ak moom Sénégal mu ñibbi si Sénégal ci vol boo xamante ne bi Air Sénégal boo xamante ni ñu ngi ko jëlee aéroport Charles de Gaulle bu Roissy donc mu nekk information boo xam ne dalal na xel yi parce que ñu ci bari ñu ngi ci doon am ay njàkkare ci rek euh, jàpp ne est-ce que dinañ ko gis seen et lan moo ko war a dal lan moo tax mu fugee lu tax mu dem yooyu yëpp nag nekkoon ay point d'interrogation yoo xam ne tey jii xëy bu ñëwee ba toog ba dal dina wax lan moo xewoon ak lan moo taxoon mu dem euh, nit ñi en tout cas ñëpp ñu ngi suspendre ci moom di ko déglu ba xam lan lay wax comme explication ci demam incha allah Euh, jërëjëf euh, soxna yi ci euh, yaatal gi am na solo. xam naa ni kàll jàngoro ji moom. mu ngay gën a dee wullee ñaay mm-hmm. ña ca loru yàlla yàlla yërëm leen ña ca wopp yàlla féexal leen ci des yàlla sàmm leen aar leen làkk mm-hmm. yi fa yàq yeegul mm-hmm. tey moom kaa yi ñu am bëri na lool lool lool xam naa nag bu test yi donte test yi bëri na ñi ñu testé waaye it kaa yi ëpp na de communautaire ñaata nga am nga ne cent ñaata 304 cas c'est 104 contacts suivis. tey 200 communautaires. waaw. ah ilaahi nay fàtte bañ juree jàmm. doy na de seetal lii rek 200. lii de mi ngi fi soog am 200 communautaires. ah mbir mi dee ngi dem rek. na ah. war de. fàtte nag euh, bu ñu waxalee yàlla rek te yàlla tax. Mm-hmm. mesure barrière yi ñuy wax. Mm-hmm. wax dëgg yàlla dañ koo deful nag. Mm-hmm. waaw mesure barrière moom. Euh, respecté wuñ ko ci réew bi waaw ndax it nag euh, ginnaaw ñun mm-hmm. ku ne xam na ku ne xam na ñu ëpp ci réew mi mm-hmm. ñoom dafa am lu nu gëm mm-hmm. mooy ragaluñu ñu yàlla waaye ragaluñu alkaati li ñuy déplorer ci ay force de l'ordre ci la nuit xaalis boobu yëpp ñuy yàq dépense yooyu vraiment bu ñu ko defoon ci bëccëg gi faat yi mesure barrière war na noo mën a xeex ak gars yi takk masque ba en tout cas masque yi moom ñu ngi koy respecté waaw en tout cas ñu ngi yor masque xaw nag ndax takk ba baax na baaxul a waaye boo nekkee ci béréb waaw boo nekkee ci yenn béréb yi war ko parce que sax boo xoolee kii bi boo loolu de kenn waxul kenn del del takk masque yow di takk uh-huh. kenn les public la wax mais liñ ci mën ci wax daal mooy takk bi moom ku ci ñëpp daal di leen gis ñu yor masque mm-hmm. mais nag ñi koy takk normal ñoo bëriwul mm, mm. parce que ñi ñi ñi yori masque yi léeg-léeg dañ koy wàccee ci seen sikkim mm-hmm. mbaa ñu lonk ko ci seen i nopp mm-hmm. maanaam ñu taf gémmiñ gi bàyyi bakkan bi di nooy normal mm-hmm. donc pour dire que daal yooyu ouverture yi nga xam ne fa la feebar bi mën a jaar yëpp daanaka mm-hmm. duñ ci tëj leen donc loolu yéeme la mm-hmm. a méngoo ak ni ñu ko war a defee ko defee mu mën ñoo aar mais bu fekkente ne ñu ngi ko yor nii rek te takkuñu ko ni ko war a takkee duñu mën a aar donc lu bi dellu gannaaw xam naa ni na loolu waaye mm. lu du ma la wax li message bi wax lan la wax damay bàyyi ba yëf ñew rek li gaay daan sa kaw la jaar <laughs> man dal dara duma ma la ko ci wax ah, ah, ah, kon xamna da xamna suma naa su ma la ko waxee xoolal di nga xam fi dëgg fii na la def dal le le gor ga defon mhm. gor ga da nek mag mo xam da doon tëggub te da doon tëgg tama mhm. dem ci sëñ bi ngir sëñ bi ñaanal ko ndax legi dafa màgget mhm. te xamna ni li du wéy waaw mom dal gis na ni ben tank mi ngi ci bàmmeel ben bank ci aduna ben bank ci aduna ta ko gankor mu ñew ci sëñ sëñ bi pour mu ñaanal ko. sëñ bi ne ko loo dal liggéey. mu ne ko man daal dama doon wër rek di tëgg. waaw mu ne ko yow góor gi la bëri nga caaxaan di mag mu toll ni yow. di wër di tëgg waaw waaw waaw. mu sëñ bi yëkkati alal ju bëri jox ko. Mm-hmm. na ko am. Mm-hmm. mu téye mu ne ko déedéet jox ko nga mm-hmm. ba ko déggandoo. sëñ bi nee na ñoo ko bokk. <laughs> <laughs> comprendre naa lépp. j'ai tout compris. waaw waaw waaw comme nag Fatou ñoo ko déggandoo. j'ai tout compris. waaw waaw waaw euh, xam naa ni <laughs> bu ñu dellusiwaatee. Mm. Euh, gis nga Fatou. mais mm-hmm. euh, boo jaaree ci marché. Mm-hmm. wallaay gis nga nag nit ñi parfois. di nga di nga méttitlu li leen di daal. Mm-hmm. mais parfois di nga yëg ni li ëpp ci li leen di daal. seen loxo da cee nekk ba mu ñoo ko tax seen parce que man heure bu may ñëw man amul bis bu may xëy si. te du ma xuus ci benn marché. parce laa dëkkee. mais ci muy jaar ci biir marché bi. jaaykat yi may romb ñépp laa lay wax faati. bu ñu dee su ma rombee téeméeri jaaykat. damay wax mu leer naññ xam nañu ma bu baax ndax ku ma romb nga nuyu ma wala ma nuyu la. waaye quatre-vingt-dix yépp kenn du takk masque. waaw loolu lu ci way mën. waaw loolu nga ci mën. waaw moom la ngay wax ba sonn rek. takk masque bi problème bi mooy dañuy yor masque. parce bu ñuy dem bu ñuy génn di dem dañuy yore masque bi langal ko ci seen kanam. Mm. bu ko defee bu ñu bu ñu gisee police yi ñu daal di jël ko takk ko normal. waaw mais tamit loolu loolu loolu du responsabilité. jaaduwul du responsabilité rawatina nga ne ci marché di jokkalante. Mm. yaa ngi exposé sa bopp di exposé sa njaboot nga nga jëm boo wàccee. surtout donc nañu gën a bàyyi xel takkum masque beeg góorgóorlu ci geste barrière yi. Mm. bu ko defee mbir mi bañ fay yàgg ñu tàggoog moom. xaalis bi dong leen ci ñor parce que sonn na xaalis dong leen ñor. xaalis boobu ngay wut nag vraiment nga feebar ba pare nga fajoo ko loolu amul solo. Mm-hmm. waaw xaalis dong nga leen mais da nga gis ni amul benn mesure de protection bu dox seen diggante ak ñoom ñenn ñi nag ñenn ñi li tax ba duñu ko def mooy ñoom ba léegi dañoo gëmul feebar bi mm-hmm. ndax da nga leen di romb sax di leen wax ñu lay moke waaw ñu lay moke <laughs> léeg-léeg nga takk masque sax ñu naan la yow yaa ngi ci sa yii ba léegi mm-hmm. waaw kon donc mu sëg <laughs> waaw c'est vrai de am na benn am na koo xamante ne sunu koñ dañ naan kii de moom ah? masque bi sax mu nekkee këram buy génn mbedd mi ma nga takk moom daal mënoo koo gis te takkul masque te nag da ko naan faap fii ti ko si bakkan bi normal nga xamante ne moom da koo respecté feebar bi moom da koo jox gëdd moom ma ngi hmm. ko waaye ko ah. ne gis nga ci mbedd mi hmm. eh, ba jëlee ko ci biti eh, bu doon ci yow lay yem sax hmm. ñu mën la koo baax ak wala ñu sàkkal la pexe waaye ah. da nga koy indiwaat ci kër ne ñoom fegoon nañu fegoon nañu respecté nañu mesure barrière yi mm-hmm. euh, ah, waaye yow nga dem jëli ko ci bitti indi ko ci biir mm-hmm. xoolal Fatou jamonoy euh, couvre-feu bi nii mm-hmm. waay waay Fatou couvre-feu kay euh, yow heure bi baax naag baaxul ak nangam sàng-sàng toogal sa kër rek yow ginnaaw ñëpp nga toog seen kër mais man ba nii may wax ak yow démb moo ci mujj gis naa ay kilifa ay kilifa maanaam ay borom kër waaw sax ma tuddee leen noonu. ñoo xam dañuy toog ci seen i buntu kër ak seen i mhm. njaboot. Mhm. est-ce ñu ngi dox ci mbedd yi. Mhm. naan ci couvre-feu bi. léeg-léeg da ngay gis bu ah bi. waaw ci <laughs> a dugg. waaw di leer na leen bi ñu fa gis kenn ku leen di wax déedéet. mais loolu noonu am na lu ko gën a yomb. maanaam maanaam boo jëloon sa borom. boo jëloon sa borom. Mhm. teg ko ci sa kanam. Mhm. nga xam ne lii nga def ak tooñ la. Mhm. doo xaar ba moroomu sa moroomu doomu aadama ne yow. ñëw di la gàggante di la gàggante et li ci gën a doy waar mooy kenn ku ci nekk xam nga li ñuy wax feebar bi dafa bari lum ñu war a jàngal te jàngewuñ ci lu bari. wallaay li ñuy faral di wax rek mooy sénégalais daanaka ñu ci bari mënatuñoo toog seen kër. surtout góor ñi. ku nekk rek boo réeree yaa ngi jël sa tànk. dayale ko tali bi fu ne nga dugg fa. di def lu la neex. donc loolu Covid bi tey war na permettre kooka. mu jàng toog këram. Hmm. ci heure Covid bi mu xam ne war na mën a toog këram au moins saytu li xew ci biir këram ak njabootam ak soxnaam. Hmm. au moins dina ko permettre mu xam ah kër gi kat ndekete su ma fi nekkul heure yi lii ak lii moo fiy xew. Hmm. mu mën ko joyantiwaat defaraat ko mais également mu defaraat boppam. xam ne heure bi ngay toog te am nga jot. daf lay may lu baree bari ci non seulement contrôler sa kër mais également jaamu yàlla jaamu yàlla boo xam ne daawoo ko def. nit ki warul toog di perte temps ci loo xamante ne daf koy daf koy indil ay problème ah daf koy indil ay jafe-jafe. Mm-hmm. au lieu que mu war a mën a toog pour jooyanti lu bare bari loo xamante ne am na ci biir këram. Mm-hmm. voilà alhamdulilah waa ji na. <laughs> non en tout cas mi ma jot. teg ko ci sama loxo. lii de Simon moo. Eh, eh, eh, maa nga naan sax Simon mm-hmm. <laughs> daal benn benn benn benn benn waay ma ko mm. waaw waaw waaw en tout cas. Eh, Fati, Fati, Mbadou sama waay. Mbadou sama waay. ah Faati de li de war ngaa xam ne <laughs> ya? loolu de moomoo ko. lii de war ngaa xam ne ni mu ko takkee nii rek li muy tekki mooy yéen ko bokk. Ah, ay ca dañ ci dem. nañ pare rek xaaral ba ñu pare. <laughs> ma maa ngi koy xaar mu woote Faati man <laughs> man rien que teg ko sama wet nii sax. Ah, muy jazakallah xayran muy muy xeeñ neex sax. yal na fay la. Ah, man daf may neex macha allah yal yalla yàlla fay la. xam naa ne waaye nag sonal nañ la de wax dëgg yàlla. xam naa ne bëgguñu la war a teg dañ doon kaf rek nag sëñ bi. xam naa ah ah kaf <laughs> man ma <laughs> xam naa ne Adja Diawara léegi ñu message doon kaf rek ñun waaw ñu ma bëgg a summi daal xam naa léegi ñu message ah dinañ la message kay waaw Faati moo daan kaf waaye man moom kafuma yow moo xoolal yow da ngaa nekk ba pare <laughs> lii taxaw koo ñëw waaye xaaral buñ pare rek ay ci bigo euh, euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax euh, lii sax xam naa mën naa tax sax mu gën a jegewaat parti bi waaw ma ne man maa ngi gën a jege parti ah waaw lii yëpp kon yow dañ lay corrompre dañ lay jënd. ah yii yëpp ah waaye Fatou. non c'est pas possible yow waa ji Pape tu me déçois. tu me déçois yow dañ lay jënd quoi attends lu leer laa xam ne ma la bokk ci parti bi de. ma c'est pas bien ma jege parti bi laa. nit day incorruptible nit day day war a dëgër ba kenn du ko mën a jënd. mais doo gis ñu bokk ci opposition bi. ñu xëy rek jox la mbuus rek nga bëgg a. non ma gën a jege. parti bi loolu la joxee million xaw ma foo jëm. ma gën a jege parti bi laa. ma ah, gën a jege parti bi waaw waaw waaw jërëjëf. xam nga souvent da ngay dégg ñenn ñu naan. Ah. Euh, bokkuñu parti waaye ñun ñëpp sekk nañu jàmm ah waaw alhamdulilah. lii day rataxal sama diggante ak yéen. ah, ah. <laughs> ay ca defe naa ni eh, waa Mbour carte seen eh, problème bi nu amoon. waaw eh, lañ leen Dan àtte fii ci tribunal bi. tout est bien qui finit bien. comme hmm. ni nañ leen. daan ci ay peine d'avertissement peine d'avertissement nak boko déggé moy peine bo xamné day ànd ak sursis mais borom dañ koy dañ koy avertir rek pour bu beneen yoonee mu bañ a doxalee comme ni mu doxalee donc peine d'avertissement boobu ñetti weer la yoo xamante ne euh, yu am sursis moy lo xamne do ko tedd da ngay dem sa kër mm. mais da ngay da ngay am discipline bo xamante bi day tax ba duñ la japp mm. benen bi aussi euh, ñeneen yi nga xamante ñom ñoy yeneen euh, ñaar yi ndax ñent lañu defal euh, peine d'avertissement bobu mais yeneen ñaar yi dañ leen relaxer tout simplement au bénéfice du doute mm. mu nek lo xamne dañ naan alhamdulilah rabbil alamin dégg nga sax seen avocat bi di maître Fati rafet lako wax ni ah, peine bobu nek na peine bu ñu mën a bu ñu kat wax deug yalla jamono ci ñi manifester bobu amana nek ñu won ci sen sago parce que hmm. amna lo loo bu dalé ci ci doomu adam wax dëgg yàlla dootul ànd ak sagoom dootul ànd ak sagoom te hmm. vraiment euh, day indi dal euh, lo xamante ne mën def lo xamante ne ëllëg ay regret la ci am mais lu ci mënti am comme demee na ni dañ na alhamdoulillah rabbil alamin hmm. tout est bien qui finit bien mu nga euh, kon nak man kay dem romb naa fa mu bari nit xaw mu ne sax ño fa nek waaye ma ngi naan ma ngi naan fi de xamna ni ka bi fi am Euh, mbooloo la. waaw parce que xam nga souvent. Euh, bu amee yu mel noonu rek day. feeñ waaw nit ñi dañuy bari. wax dëgg yàlla xam nga ñu toj sa kër ba pare. Mm. Euh, ba pare daal di lay jàpp yóbbu. Euh, loolu moom lii moom àtte moom lii hmm. dong lañ ci mënoon a xaar. waaw lii dong lañ ci mënoon a xaar dëgg hmm. yàlla clémence bi daal. Hmm. am na solo lool. yërmande yërmande léegi nag léegi nag yàlla na yàlla def. Euh, dolliwaat jàmm rek ba nga xamante ne ñoom. ñu jot a yàqule ñu jot a ñu mën leen a dàmp loo xam ne buñ ci amul kër jege kër. waaw waaw waaw dëgg yàlla buñ ci amul kër jege kër. am na solo. ndax am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi cay dox ay jéego Euh, ay ay euh, ba tey defe naa ni am na beneen élément bu ñëwaat euh, waaw xodde ba balaa ñoo ñëw ci doone san bi waaw bâtiment bi nga xamante ni moom ñu ngi nii may tiim sax faat yi waaw mu nekk bâtiment R plus 3 boo xamante ne bii wax dëgg yàlla. yaa ngi koy tim noonu dafay wane lu bare bari waa gis naa ko. kay gis naa ah. euh, dafay wane lu bare ci ci ci suñu tabaxin. Mm-hmm. anam yi nga xam ne ci la ñuy tabax parce que bâtiment rek warul jékki-jékki rek daanu noonu comme un de cartes. Mm. jékki-jékki rek lépp wat. lépp mm. daanu cela veut dire qu'il y a quelque part wala bokk nañu ko liggéeyee. Mm. liggéey ba nekkul liggéey boo xam ne. Euh, norme technique yi nga xam ne war na caa am am na ko hmm. donc loolu rek lañ ci mën a jàpp am na ay défaillance quelque part am na loo xamante ne ci biir liggéey bi amaana demeewul noonu mais li ci mënti am ñi ci ñàkk seen bakkan ñoom ñoo perte parce que vraiment nekk na loo xam ne lu doy waar la te benn entreprise moo ko tabax li ci gën a doy waar hmm. bu doon ab ab boo xamante ne bi privé bu ñu jël sax ne ko ñëwal nga liggéey fii ñu fay la sax nga ne waaw mi ab entreprise la ne bii loolooy liggéeyam hmm. moom moo ko tabax donc pour dire que euh, nañu def plus de sérieux ci sunu sunu construction yi construction boo xam ne nit dëkk gu ci nag bu ñu demee ba nga xamante ne bii day daanu euh, doy na waat. Hmm. xam nga li ci gën a yéeme mooy li nga wax léegi ab entreprise te xeeti doxalin yu mel nii yàgg naa am ci réew mi nag. Hmm. yàgg naa am nga gis ay ay xeeti yoon tali yoo xam ni dañu koy defar. Hmm. du mat benn at ñaari at di commencé yàqu. nga gis kër yoo xam ni xam nga xam nga tamit euh, wax dëgg yàlla xam nga li nga wax ni bu doon benn maçon moo ko defar. mu leen la ni maçon bi lii mu nar a teg baram di ko di leen liggéey waaw lii a teg baaxul mm-hmm. waaw waaye entreprise nga xam ne ay kàngam ñoo fay nekk mm-hmm. sagam noonu la demee sagam noonu la demee kay ndeysaan ndeysaan ndeysaan maa ngi gis maire bi mu ngi jooy di yuuxu di xataraayu euh, moroom yaa ngi koy téye xam naa ni doomam doomam moo ci bokk rek mm-hmm. xam naa ni doomam ci bokk rek Sénégal moom te te li ma ci gën a metti mooy ndeysaan manœuvre yi ci dee. ñoom mm-hmm. ñoom la ñuy fay ay deux mille cinq cent. bul sonn bul sonn waaw yow mi gagné say millions nag euh, procès bi euh, soo moytul bo euh, fa muy mujjee. Mm-hmm. mooy mooy comme fii réew mi moom boo bëggee ñu ñu yokkal la dara. c'est pas la première loolu laa la wax du stade du plomb daanu la fii ay gradin daanu am ñu ca dee ñu bari ci ay ah, ndaw. Ah. fu mujj. xanaa ñu joxaat kook sax yeneen i marché. merci <laughs> waaw loolu laa la wax réew maa ngi noonu. ndeysaan ndeysaan maa ngi gis jigéen ñaa ngi nii di xataraayu xam naa ñii mm-hmm. ñii seen i borom kër ñii i doom ñii seen mm-hmm. mbokk xam nga ne na réew mi lii hmm? eh, ne ñoom la ñuy mm-hmm. liggéeyloo vingt quatre heures sur vingt quatre ñi nga xam ne ñooy ñooy eh, guddi di liggéey may wax nag may wax nag ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a bi naan non suñu kii mooy na na liggéey bi gaaw yegg ba ñu livré ko na gaaw yegg waaye na nekk liggéey qualité wax dëgg yàlla na nekk liggéey bu baax ay famille ñooy ñor a ñëw dëkk ci biir étage yooyu ngay tabax. bu ko defee nag jékki-jékki rek yëf ya màbb seen kaw. waaw ñeneen ci suuf ñëpp amaana ñu wàññeeku ñu dee ñeneen ñi ca kaw am ay gaañu gaañu vraiment loolu liggéey bu gaaw taxut taxut taxut ñu def ko. dañ ko war a dañu dañu war a def booy liggéey da nga ciy boole sérieux. Mm-hmm. boole ci xam-xam. Mm-hmm. jël ñi nga xam ne ñoo ko war a liggéey ñu mm-hmm. liggéey ko. mais nga bañ a def loo xamante ne lii ab tappale la. loo xamante ne balaa balaa balaa egg fa war a egg daal di egg daal di daan. gis nga Fatou benn bis mos jaar fii marché central. amoon na benn hôtel bu fa nekkoon euh, ma gis benn waay di peinture ci ginnaaw mais gis nga faati waa ji wallaahi gis nga waa ji la keroog laa xam ne nit boo xam ne ab entreprise moo ko war a def peinture boo xam lay leen lii entreprise da ko war a def parce que waa ji ma nga nekk ca kaw a kaw ba yow yow yow pour nga téen gis waa ji day mel ni picc mais xam nga waa ji lan la def mm-hmm. ay bantam daal la tegale hmm? ba yéeg ca léegi moom fa muy peinture. xam nga mm. nu mu koy nu mu koy laalee. Mm. dafa jël euh, boros bi. Mm. def ci bant bant bu gudd takk ko ci. bu soosee bu cappee loolu ci peinture bi. di bomb miir bi di di peen. <laughs> man maa ngi taxaw naan. allahu akbar imagine kii li muy téye maa takk na boppam. takkul dara loolu laa la wax insécurité boobu. tey jii tey jii benn yow même waa ji bu risqué. yow ma koy gis sax yaa koy gën a stressé. waa ma ca kaw yow mi ci suuf yaa ko gën a stressé. mais mais man damaa parce que man déjà pour ma téen xool waa ji man maa ngi mel ni picc laay gis mi ngi mel ni ngay xool benn immeuble di téen xam nga tey jii borom immeuble boobu nga xam ne moo def loolu loolu waa ji xam nga waa ji jógewoon fee ñëw liggéey bii la bu ay matériel mais loolu laa la wax kookat kenn du avant ne waa ji pap nit du ci a loolu boo ci deewee xaruwoo rek koy faati en dehors de xaru waa ji mais ñiy def loolu loolu waa ji parce que mi ngi mel ni mi ngi mel ni mi ngi mel ni waa ji pap loolu yow kenn du la ko def loo waaw mais damaa conscient loolu kenn du la ko def loolu yii Fatou am na fu réew mi toll am na fu réew mi toll mhm. doo gis gars yi def loolu dañuy nekk ay gars yoo xam ne en mhm. général en général ay saaba la nekk mhm. dañ nekk tey jii euh, kii moom immeuble boobu mu leer ko ni société la ab entreprise la war a jël mu ñëw defar lii supposons mu waxtaan kooku ne ko boo ma joxee deux millions mu peinture ko mu gis benn waay waaj waaj waaj waaj na ko boo jëndee ñeenti potu peinture euh, <laughs> xam nga réew mi daa bëri ay. waaw waaw loolu la tamit nag loolu la tamit waaw. mais loolu la rek inconscience la des fois aussi. Ah, day day am une petite dose d' inconscience loo am na loo xam ne bu ko nit defee moom xamal ni xamul li muy def sax. yow mii yow mii léeg-léeg nga gis nit liggéey liggéey boo xam ne. Mhm. yow yow da nga naan waa eh, kii di war naa am xaalis. Mhm. fekk na waa bu la nee li nga ko ci fay da ngay bëgg a jooy. ndeysaan fekk na leer nal ni am na am lii lii ku mhm. xam kii bu xamoon valeur am dëgg. na cee am xaalis mais réew mi moo bindoo noonu moo mm-hmm. mel noonu mm-hmm. dafa bëri ay jéngumaan da gis koo xam ni maçon lay war a wooy mm-hmm. faati ku lii mu woo maçon bu qualifié parce que xam na ne bu woowee waaj waaj na ko non il yëpp daal bu jaru ko benn miir laa bëgg nga wëraleel ma ko nii defal ma nangam sàngam après raaxal ma gisoo yooyu ngay wax léegi nag waaj na ne non vraiment dama noonu nga ne ko waa noo garaawul benn bàyyi peere lay romb benn waay xam ne moom li moo xamoon <laughs> waaw noonu la leen di wooyee <laughs> xam nga léegi moom peeram lay yor ak benn ah, si ah, woom. Ah. ab bay waaw. ab bay peel moo lay romb. léegi nga woo ko mun la non lii lii yomb naa defar te kat du mool day dem di fori mool ay ay ay mool yu des lay jël di yëkkati teg wala demal ne diw mu may la ñaari mool noonu la koy takkalee. <laughs> takkalee jënd am quelques mool waaw ba am quelques mool. jënd ñaari kilo ciment. waaw tey boo nee mu la non lii lii deux kilos rek baax na. Uh-huh. ah yow nga def noonu rek deux <laughs> xam nga. léegi nag loolu noonu yaa ngi fàtte ni. Mhm. daa am loo koy doyee. Mhm. gis nga bis buy daanu. Mhm. mën na lor ñu bëri bëri bëri bëri. fii Sénégal moom. Mhm. ah en tout xam naa ne taf yëngal moom li bëri ci moom. bëri na ci bëri na ci ah. trop da ngay da ngay da ngay jombi sax parce que ah. da nga dul comprendre taf yëngal boobu nit ñi dañoo ñàkk wala wala wala dañoo bëgg lu yomb aussi. Mm-hmm. doy na war mm-hmm. da xool doo mën a comprendre fan nga mën a teg. Mm-hmm. parce que defar sa kër loo xamante ne leer na la lii. du qualité. te amul sax sécurité ci waa kër gi. nga def ko fa damaa jàpp ne xëy na ñàkk ngay tax. Eh, am amna solo <laughs> xam naa ni eh, mm-hmm. li serigne Mbacke Ndiaye doon wax dembu mm-hmm. nan katu ñeex yi. waaw defe naa noonu la ko woy woon. naan ñeex waaw naan ñeex wa wa ni ma amee nan ñeex mm-hmm. non la amee ñu taf yeengal waaw ah, moy nan katu ñeex yi rek. <laughs> ok ngi noonu eh, benen mi element bi topor moy waxtane li nga xamni moy mooy. ci walu wàllub ah, ñu ñew ci jaare mm. ah, man de jaare man mom fa ñu yobbu mbir ya dal xam ni man mom. daf maa kiiwul noonu. àggu fa waaw waaw. Hmm. wax dëgg yàlla yàggu fa. Hmm. waaw ginnaaw daal xamuñu li xew. Hmm. waaw te nee nañu jiital nañ ko indi. ñoom ñu ko jiitaloon yóbbu. <laughs> su ñëwee na waxtaan ak ñoom rek. waaw waaw su ah, ñëwee na waxtaan ak ñoom rek. dafa am yërmande. nit boo xasee ba nekk euh, une personne publique. koo xamante ne ñëpp la xam. parce que euh, yàllaa la xéewale ñu xam la ci sam njàng. ak ci sa excellence. dafa am lu bari loo xam ne boo koy def.

la war amal explication djema taxaw wax leen lan mo taxone ma def li buñ may djegal ñu djegal ma parce que vraiment nek na lo xamni pendant une semaine pendant 20 jours tenir na ñep en haleine kenn xamul euh, lan moko dal kenn xamul ci ban situation la nek wax ju nek feeñ vraiment c'est stressant pour mom mais également pour sa famille way Sénégal ñep kenn ku ci nek jël nga ci sa dose de stress. Euh, foofu laa cay yem man duma ci commentaire. Hmm. Ah, euh ma ñew ci hôpital. <laughs> macha euh, élément wi defe naa élément don de sang bi de sang bi. moom mooy hmm. réseau d'interconnexion de partage et de solidarité. Hmm. ñom japp nañ ni dal fi nek ni euh, hôpital euh, régional banque de sang bi war nañ leen gën jappalé ndax gis nañu ni dal euh, dañuy am ay jafe-jafe pour euh, mën a approvisionner banque de sang bi ci wàllu deret parce que nit ñi non seulement fi mu nekk ni sawaruñu may deret hmm. depuis ñuy wax VIH sida bien avant le VIH sax daanaka nit ñi sawaruñu woon may deret mais dafa gënoon a yokku hmm. mais bu ñu demee ba ci biir to di dund ci période boo xamante ne bii dañ naan Covid 19 dañ naan nit ñi nañu dépp moytu euh, rassemblement yi moytu yenn lamiso yi loolu dafay jeexital ci ñoom bu baax a baax hmm. dañ koy gën a yëg ñëpp donc loolu moo tax ba ñom ñu japp né war nañ leena gëna gën a euh, soutenir leen ñom ñu organiser sen don de sang bo xamantene bi c'est bien possible ñu organiser ko parce que c'est vrai que rassemblement terrain tere nañ ko mais bo démé di organiser don de sang amna na nu ngeen di taxawé yeen ci mën ngeen a may deret te du am laamiso du am euh, yeen ñëpp di ngeen respecté geste barrière yi te loolu lañ def mën may deret mais également yeen nga dégg ki nga xamantene mom moy responsable banque de sang bi docteur Ndiémé Touré di wax né nit ñi nañu ñëw di jappalé banque de sang bi parce que nak euh, choono yi ñi jankonté ñom rek ñoko xam mm. sonu nañ trop démb nak lancé na appel xawma nag euh, nu mu mujjee. Hmm. Euh, nee na newoon naa képp kuy déglu daal soo mënee déplacé wu dem ca banque de sang ba maye deret wax dëgg yàlla loolu dina baax lool. Hmm. waa ji pap tamit newoon naa la nga dem maye. waaw moom nag noo mujjee. yow de boo ma xoolee sama kanam gi rek nga xam ne. Hmm. Euh, la ma daloon dem bàyyiwu ma. waaw. Ah, kon baax na xam nga Faty banque banque yëpp nit ñi. <laughs> dinañ ca daw di investir. waaw dinañ daw di jëflante ak mm-hmm. ba mu des banque de sang. banque de sang de ah. moom boobu <laughs> <laughs> ah, boo investir ci banque de mm-hmm. ah, yaa ngi jaayanteeg sa borom de. Mm-hmm. waaw ku investir ci banque de sang. di nga xam ni lebal nga ku jar a lebal. yaa ngi denc sa banque sa banque bële. bu mag ba non seulement xoolal da nga koo denc. dara mu delloowaat la ko ca saas. delloo la koy ci anam bi gën a rafet. ndax di nga amaat deret ci nu nu baax a baax a baax a baax. ba pare. en dehors de ça di nga ci amaale tuyaaba. tuyaaba ju rëy. waaw di nga ci amaale tuyaaba ju rëy rëy rëy mm-hmm. rëy rëy. imaginer ki accident ñëw hôpital ñu war ko may deret ñu xool amuñu deret ba mu loru fekkoon sa deret nekkoon fa ñu jël ko jox ko ko mu sowe sooyewoo bakkan kon looloo tax nag euh, euh, wax dëgg yàlla don de sang am solo. Mm. kenn ku ci nekk daal boo ko mënee def ko parce que c'est important. Mm. Mm-hmm. Mm. waaw euh, moo tax am na solo. Mm-hmm. war nañ di ci bàyyi xel kon saa su ne. tout à fait. kuy leble lebleel sa borom. Mm-hmm. ndax li may faral di wax liggéeyal sa borom rek moo jaadu ci kaw suuf. ndax ëllëg moo lay fay ba ngay uuf. macha allah waaw bu la dara jaral ngay def li neex sa morom. ba tax ngay bàyyi li neex sa borom. bis dina ñëw des na la jël jébbal sa borom. te kenn du ko def ku dul say baay ak say morom. waaw ah, kon fàttali hmm. lebal sa borom rek moo jaadu. wallaay allah fàttali am na solo. waaw mi ngi noonu kon nag yàlla xiir. yombalal ñu ñu koy lebal parce que nag nit ki jaamu yàlla boo mënti def rek. dana hmm. leen yàlla la ko yombalal am na ñu ko bëgg hmm. yombalal rek mu yombalal yal nañu ko yombalal. amiin ginnaaw ñun bëri nañu ay euh, xew-xew yu ñuy faral di def. waaw bëri nañu ay xew-xew yu ñuy faral di def. Euh, ak euh, di ca dem ay ndajeeg yu ni mel yooyu ah, mën nañ caa profito di ca occasion di ca def ay don de sang. kan moo ma sa xalaat ngénte di ngénte woo woo waa banque de sang bi. déedéet kenn. <laughs> kenn mosu koo xalaat kenn koo xalaat pourtant c'est bien possible. waaw mun naa boo woowee banque de sang bi. ñu ñëw ci ngénte la surtout mag ñi xëy ñu góor ñi xëy. waaw ci tudd mi. waaw ñu ñëw heure boobu ñu bari dinañ may seen direct. ci te te te te loolu xéwal la. wallaay wallaay bu paree ñu togg laax bu neex jox leen ngeen lekk. waaw waaw ba pare toggaleen ceeb bi neex. teggaloon ceeb bi neex ngeen añ. Mm. waaw te am ngeen tuyaaba. wallaay wallaay ndeysaan ah, am ngeen tuyaaba am ngeen tukki yóbbu <laughs> ay ca mi ngoog dañuy daal di def nii tuuti dellusiwaat ci euh, waxtaan wi. askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe fii yi ñu nekkee dañu seetlu atum 2000 ba léegi li xew ci réew mi musu fee xew. Askari yapma kabena tadu Nyonginan woy Gol gichireumi Ngiyoy tinope gunyo Sele nyudogalinyo Nyari facilinyo tero Ba imam yi wachiti talibi Sama mam dan lehebnan Adum demil na kangilidon Atum benak atum dolen viselo kan vi Sånne nei Senegal giri un jamulai Like ilen til bai kjoli Bai kjero til bai nai Askan vi lollen i khajien Senegal giri un jamulai Like ilen til bai kjoli Bai nan plan reva Askan wiya e po danyo reve Nyongi nan plan jafay Askan wiya e po tebden jafanay Batog da po chitik ka bigas mi jeex Nga wër ci mbedd mi gi solo dara Xale yi tàmbale yi li jooy Papa dama xiif Yaay dama xiif nga fal sa député assemblée ngir mu toogal fi askan wi ñu nekk koy xiiro ak naayoo di daggal sante di doorante des Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li te bàyyi naayoo askan wi loolu la ñuy Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi ay cami ngoog euh, su ko defee rek euh, bu ñu dellu siwaatee hmm, ci waxtaan wi. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. ndeysaan. Fatou ah, déggu ma daa man sa gémmiñ neex na de. yow waaw ndox mi ma dan naan la. ndox man. <laughs> loo doon sàq mi. ah man defaat ab kaasu ndox laa. te nag man li nga doon sàq mi bokkoo ci. <laughs> doy na waar dinaa la boole de. <laughs> yàlla daal yàlla daal xam naa ni. seetlu na ne ab kaasu ndox laa yor. la boole de. Ah, léegi daal xam naa ni kaas ndox. da naan kaas ba ñuy naan. waaw waaw moom laa wax. Ah. léegi nag bu dee kaas moom daa am luñ ci sàkk bi. Mm. nga wax ma rek waaye man de. Ah, kon kon kay baax na kon nañ dem. Mm, man de mii ma nii kaas laa yor gisoo nii kaas baa ngi nii sax. Mm, <laughs> waaw eh, Fatou defe naa ni eh, problème mu mbuurkat bi. Mm-hmm. nga xam ne ci lañu nekkoon boobu ba tey. ak sax eh, njëndinum suuf fii ci réew mi. Mm-hmm. parce que déjà première injustice rek. Mm-hmm. boo jëndee suuf maanaam askan wi li leen war a leeral. li leen war leeral ñu xam ko. te xamuñu ko dafa bëri. dafa bëri tout à te bëri na ci li ma waxoon démb. Mm-hmm. Euh, li njëkk indi coow li. Mm-hmm. Euh, maanaam pour pour pour ñu nax la bi. muy yomb xam nga Sénégal dañoo am habitude yàlla baax na. Mm-hmm. dañoo am habitude. garaawul garaawul. dañoo am habitude bu ëllëgee lépp dina leer. te yow lii nga doon wut wutoo ko pour ëllëg. pour tey nga ko wut. dañoo am habitude kenn du ko coo suuf. waaw ya, <laughs> suuf dafa nah, diis waaw <laughs> nah, suuf dafa diis suuf dafa diis gi yëpp nag leen dong leen ko tax di wax de mooy da dañoo ragal dee waaw donc waaw waaw ah non c'est vrai que dafa doy waar Sénégal yi moom léegi nag ci yooyu la ci yooyu la kàccoor bi di mhm. occasionné wu rek mhm. parce que leer na ko ni doo ko ci moom parce que suuf dafa diis mhm. donc sa dem gendarmerie fekk fa benn commandant mu ni ma problème fekk ma benn waaye mu naan ko pourtant kii ma amal problème bi sama xarit la commandant bi ne ko ñun loolu mom ñun dañ sonu hmm mun ko la plupart ci doomu adamay mm-hmm. seen xarit seen amna jamm ñoo leen di def yenn yi mm-hmm. parce que dañuy japp ni dara du leen ci fekk tout à fait parce que seen xarit la ci loolu lay mm-hmm. bëgg di occasioner hmm seen mbokk la ci loolu lay bëgg di occasioner waye bu ñepp doon def ni légui wa dëkk bi rek hmm loolu nak mo dal ñenn ñi deug la man pour li ngay wax lolu pour euh, firndel ko rek dama xam ko xamanteni ki xaritu bopam la jël police pour yar ko ci ñak fay bor bu mu ko ñak fay bor ñëpp jàpp ne waa kii sa xarit bi lan moo nga di ko nga nek man du xat du pour xaliss bi dama koy bëgg yar pour bu ëllëgee ku mu amel bor mu xamni bor bi daf ko wara fay mais du luñ ko may bor buñ la may ki la koy forcer bor buñ la lebal ki lay forcer pour nga fay ko bor mu ngi lay dimbali ndax dina fexé ba bor ba nga bor ko nga bañ ko yobalé mais yobalé ay bor nak ay yefu akku jambour nga jël yépp yobalé ko wax deug yalla lolu kenn ñaan ko yalla dem ci kanamu suñu borom subhanahu wa taala mu lay muy jël ci say tuyaaba di ko fayee ay nit ci bor yoo leen amee loon te fayoo leen ko loolu dañ ko war a moytu beneen bi ngay wax tamit c'est tellement pertinent dañ naan eh, nañ ko bàyyi ak yàlla ak Sénégal suuf dafa diis ak nangam ak nangam bu ko defee ñëpp ñiy dugg ci mbir mi di ci def naka sa dul noonu ñoom ñuy gën a am doole parce que xam nañ ne à peu que ne lii su ma ci defee naka sa dul noonu kenn kenn du ma ci topp parce que tout kii moom gëm na ne suuf dafa diis te warutee topp kenn parce que wóorul donc yooyu mooy tax ba euh, xalaat ci yooyu. Hmm. te li ngay wax tamit suuf si ngay wut. pour pour nga tedd ci la pour nga hmm. tabax ci kër dëgg ci sa njaboot la. dëgg yàlla donc c'est vrai que yaa ngi ci source borom. Hmm. mais wutoo ko pour ëllëg. c'est vrai que yaa ngi koy wut pour loo xamante ne fa ngay toog sukkandiku fa jaamu yàlla. Euh, jàppale sa njaboot ak lépp mais du pour ëllëg kon nag gérer ko fii rek la ko fii tey mooy wóor. moo am loolu mooy fula. plutôt que nga jàpp ne kii da nga ko war a bàyyi mu lekk sa xaalis. nga bàyyi kook yàlla. te xoola Fatou li ci gën a garaaw gis nga euh, liñ naan ku la xañ loolu rek dafa mel ni xañ na la sa teranga xañ lan. Eh, maanaam ku la xañ eh, ku la ku la njublang ci wàllu suuf si. tout à fait imagine léegi yow eh, di nga gis koo xam ni bu amee xew. Mm-hmm. mën naa ñàkk ca xew ma un million. Mm-hmm. waaw ci seen yebbi yi ñuy def ak ci teraanga yi. Mm-hmm. te xëy na sonalu ko. ñu arnaqué la ci suuf soo xam ne yaa ngi ko jëndee woon juróom fukki junni. Mm-hmm. deux cent cinquante mille. Mm-hmm. mais loolu day diis ci yow métti ci yow. Mm-hmm. kon war ngaa xam ni ñaari poids yi bokkul. bu doon xaalis bi rek la. jaaxalu la. parce fële ñàkk nga fa million wala huit cent mille. ci ay yebbee ki defi nangam. te ba nga xëy da ngaa kontaan. yaa ngi naan bu dee mu doon tey ma dolliwaat. waaw rëccu woo li nga def te kii ma deux cent cinquante mille la la lekkal mais daanaka toroxal na la. sa àdduna li nga xam ne tey jii dafa jafe ci réew mi te mm-hmm. Sénégal bu nekk waroon caa jot mm-hmm. yow ngay xente ba am ko te ñaare boo xoolee euh, boo évaluer ñi nga dégg ñu ne yow am nañ terrain mm-hmm. jigéen ñi ngay dégg ñu naan am nañ terrain moo ëpp góor ñi ngay dégg ñu naan am nañ terrain te ci biir jigéen ñooñu ngay dégg ñu naan am nañ terrain boo xoolee soixante-dix pour cent yi ci ñoom ay taaba taaba lañu waaw ay taaba taaba lañu léegi nag ñooñu nga xam ne ay natt la ñuy bokk su ma teggee sama natt bi jënd terrain su ma teggee sama natt bi dem dem moolu ji wala defi nàngam ñoom dañoo yombal tabaxu kër dañ ko yombal parce que ñoom affaire këyit procédure ak yéen nangam sangam yëpp xooluñu ko ñi ëpp ci ñoom xamuñu ko parce que nag dañ leen a wanul yoon wi waaye war ngaa xam ni yéyum a du yéyum kaani xeeñ waaw waaw Faty dafa am loo xam ni ci réew mi tamit faa mu leer xam nga jënd suuf <laughs> jënd suuf suuf nuroo naag mburaaka waaye bokkul uh-huh. waaw xam nga tey jii fekk fekk ab terrain benn hmm. waay. Hmm. non fii ni ñuy jëndee terrain nag parti dafa yomb. dafa yomb dafa yomb trop waay. jiital benn waay bi surtout jigéen ñi dañ ko def en douce nag. ana sa yaay mu ngi ci biir ma ne waaw maire ba sax mën naa am te place am lañ koy fekk. Hmm. ah man de sama sama dëkkandoo bi daa am jafe-jafe doon jaay doon jaay ab terrain ma ne ko nag xaaral man euh, am naa sama benn xarit bu bëgg terrain. léegi nag bu ko defee yow nga ne ko ñaata la koy jaay mu ne nàngam. waaw léegi yow benn. <laughs> yow nga fecc sa bu la fa sër ko yañu sédé wa ngeen ko su ngone ngeen ñëw nangam mu ñëw nga wo benn way mu tok mu mu jël si su ndaw légui yow en dehors de procédure këyit yoy yow lijeentu terrain ba fañ ko def ndax yoonu ndox la ndax yoonu ndox la budé sax terrain bi baxna mhm. légui bala ma ñew ci fiabilité bi terrain bi xamoo ndax yoonu ndox la terrain bi xamoo ndax fofu kër warna fa jaar am diat wala yoon lañ ko tracer ci plan bi. yow xamoo dara ci terrain bi. yow daal jàpp ngeen daal terrain bi daal a ko moomoon li mu la koy jaay yomb na nga ne naa ko jënd. léegi-léegi sax nga gis koo xam ni ba muy jënd du pour moom waaye nee na kat da koy jëndal benn doomam. waaw ah yow jënd suuf dafa baax de. <laughs> ndax su gone yi mag waaw <laughs> ah, mbaa boog lii ngay jënd tey. di ko jëndee deux cent cinquante mille. Mhm. fii ak ay weer yu néew day yokk. waaw nga cee am million. million <laughs> waaw. wallaay des na donc kay waa ji Pape li nga wax lépp moom mooy tënk euh, mentalité nit ñi ci njëndum suuf ak si njëndum euh, alal. acquérir ay biens parce que li ci gën a doy waar mooy euh, lépp looy jënd wala di ko def te di nëbbatu. moytul ko moytul jëlal say précaution yëpp parce que boo demee bay jënd suuf nag nëbbatu waru cee am wàll war ngaa mën a seet koo xamante ne une personne de confiance mm-hmm. koo koy expliquer na ko man de dafa am ku ma ku ma wax ni dafay jaay terrain ma bëgg koo jënd est-ce que doo ma ko seetal ba xam ndax fa mu nekk wóor naam nangam ak nangam loolu mënut a ñàkk mais bu fekkee dangaa ngaa nëbbatu te xamuloo procédure yi nga war a jëndee ba am kayit bu wóor nit day jaar sa kaw jaarat sa kaw. Mm. comme ni ngay wax rek te képp ku ñu jaar sa kaw nag day metti mm. parce que investissement pour kër dafa nekk loo xamante ne dafa diis non seulement c'est un gros investissement. Mm. parce que lu mu bon bon di nga jëf deux cent cinquante mille trois mille loolu xaalis la. si jamono ji ñu toll nga xamante ne les gens tirent le diable par la queue. loolu yaa ngi koy def déjà di ko nëbbatu. Mhm. nga dem ba ci biir gis ne dañ doon jaar sa kaw dina nax bokkut xaalis bi nga xam ne yaa ngi ko doon jël di ko di ko pasar pasaree ci xaw mhm. boobu tu le fait de gaieté de cœur parce que objectif ba mooy fexe ba puuka mhm. am nga ko ca donc amoo problème yaa ngi ciy kontaan mais bokkut ak jël sa xaalis di bëgg a jënd kër ba pare ñu nax la ci kër gi gis nga waa ji pap tey jii bu ñu jëloon sa téléphone bii rek sax téléphone bi kese. Mm. parce que en fait en fait ñu sat la. Mm. ñu nax la la dafa metti ci xol même bu doon sax. Mm. azim dafa metti pour nangu sa parce que au delà de alal bi ñu da ngay considérer né man dañ mm-hmm. ma tek dof. dañ supporter dafa mm-hmm. donc kuy jënd encore une fois comme li ñuy wax rek ba précautions. Mm-hmm. xam ko xam. Mm. koo ko expliqué la. Mm. won la fi nga war a jaar. Mm. pour ñu bañ laa ndax ñu bañ laa plumer comme li ñuy faral di def. Mm-hmm. donc li ñuy wax rek mooy li ci gën a garaaw nag mooy di ko nëbb. bu mm-hmm. ko nëbb surtout nëbb gi wóorul parce que lépp looy def di ko dëbb moom na la leer na ka nga koy defal. atu boobu mën na ko jël. comme excuse de la tëriande wala mu def la nak sa du noonu kon nak nañu bàyyi xel bu baax ba c'est pas intéressant nit ki dajale xaalisam parce que bu don 300000 dang koy dajale 300000 neexut a xëy xëy xëy am ko amut ko xamantene sa salaire meun nga ko ci guenné wala sa salaire sax mat ko pour nga guenné ko ci jënd kon nak ay dajale la dajale la ay sacrifice lay laaj donc bokoy duggal duggal ko fu leer fo xamné euleuk do am ay grincement dedans dents surtout sax li gëna tey doy war moy réer li lo xamné loo ta wax ay boo set ni ngay sonné da ngay sonno waaw gis nga faati en général bo xool xoolee coow yi ngay dégg yëpp nag ci euh, ci penc mi ñaari bu ñu cay dugg dañuy naan teg kenn du leen yëg. Mm-hmm. waaw kenn du leen yëg waaye nag bu litige amee rek. nga commencé dégg coow dégg mm-hmm. riir mm-hmm. te nag vraiment euh, jënd suuf li tax nga war a am ñoo ko waxtaanee ba ñu teg la ci yoon. mooy fa nga koy jënd du looy tonni di yóbbu sa kër. ba heure mm. boo ko soxlaa dem teg ko fa da nga ko fay bàyyi. xoolal ñi ëpp ci nit ñi pourtant jënd nañ ay teene ña ngi ko bàyyi ci àll ba. yow di nga toog semaine doo fa am na ñuy toog weer duñ fa dem. Mm-hmm. am na sax ñuy dem ba toll ci biir at bi benn yoon lañ fay dem. Mm-hmm. waaye léegi kay loolu kay kon kay yow daa war a wóor. bu doon bu doon bañ la ko jaayee da nga koy tonni. Mhm. yóbbu sa kër deg ko fa. waaw <laughs> heure boo ko soxlaa nga yóbbu ko fa mu leen lii yaa ngi koy gis mais da ngay benn jour rek ñu woo la ah yow de sa sa terrain ba nangam sangam. Mhm. wala nga jaar fa rek gis fa leneen. Mhm. waaw kon kay loolu war nga war naa war nga koo sécuriser sécuriser ko. ba nga xam ne boo kenn a def lenn. waaw surtout nag fi nga xam ne fi ngay jaar yëpp dafa yomb nag. waaw euh, ñu dem service commercial jëli benn di Excaf ak TNT by Excaf coono jënd antenne ak décodeur jeex na tàkk waaw waaw fayal 6500 weer wu ne ci diiru at nga am ci saa sa décodeur benn antenne abonnement mana yi seetaan 86 chaîne weer wu ne ta ñoo lay installer lépp ta doo ci fay dara wooteel gaaw jaay laa la fa ci ja ñere bay Excaf daal muy lépp. jël bu set bu amul benn weerante doole xel jom ju bare mooy la voix du cœur la voix du cœur ay ca mi ngoog jaay laalo fa cere ja ñor yi hmm, tabarkàlla <laughs> lu ko may du jar de <laughs> déedéet déedéet hmm. defe naa ni promotion bi euh, ñaar ci ay fan de moo ci des waaw jàpp ñett desatul lu bare de en tout cas ah, daal le 31 lay jeex le 31 la war a jeex hmm. euh, kon nag képp koo xamante ne yaa ngi ko doon waaj di bëgg ñëw boo ñëwul ci ñaari fan yi moom mm-hmm. boo xefee doo mën a am waaw ah, doo mën a am ndax xam naa am ci yu njëkk yi rek waaw suba ginnaaw suba daal nañu góorgóorlu pour mën a ñëw bu ko mm-hmm. dee bu ko defee ñu jox leen seen dëkk daal ci anam boo xamante ne bi dafay oyof te duñ ko yëg daal. 6500. 6500 ñu boole lépp jox la. ñu boole lépp jox la. Hmm. weer wu ne nga ñëw joxe 6500. ba at. ba at wallaay ndeysaan. voilà loolu neex na. am na neex na kay neex ñu xool ki ci ligne bi ñu ngi jaajëfal lu baax a baax euh, borom la dépêche point sn. Mouhamed mhm. Diop Mouhamed Diop. kii yónnee xibaar yi léegi. mu ngi noonu waaw. macha euh, xam naa ni mu ngi ci émission bi. Uh-huh. dëgg la euh, dëgg la bu noppee rek di ngeen ca jot. daw leen gaaw ci youtube bi ngeen uh-huh. abonné foofu ci dépêche point sn la dépêche point la dépêche point sn waaw su ngeen ci abonné rek di ngeen ñuy mën a jot ci ëttub Yoor Yooru Kajoor ak yeneen i xibaar yu leer tóor allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi Thiam ah, développement maa ngi leen di ziare Fatima ñu delloo ziar bu baax alaaji euh, nu mu tuuti béy ak dugub <laughs> waaw nag maa ngi toog maa ngi ba am na lu ma ko am question lu ma ko doon bëgg a posé mais léegi sax na wax bi waaw mu ne waaw waaw waaw bëgg dugub bi soo dalee kaasum meew waaw boo ko saxalee weer ah boo neexee laaj tiir avance de boo neexee laaj moo tax mu doon tax wallaay wallaay wallaay caam caam li li meññee ci réew mi waaw bëri njëriñ lool wallaay ak bëri njëriñ waaw ñu wallaay wallaay ndeysaan man lu nekk rek laa bëgg wallaay wallaay ndeysaan

ku ku mel noonu. ba mu dóor hmm. waaw. ba mu dóor ko waaye ki nga ne nii daa bëgg jënd waaye moom tey. Hmm. bëgg lu leer nañ. Hmm. dox ci lu leer. kenn du ko nax. kooku du neex a nax. kooku du neex a nax. waaye Sénégal dañoo mën a profité. waaw il faut ñoom ñoom il faut nga lu ñëw rek da war a gaaw profité wu ci. surtout profitar nag moom en général ci rëcc rek lay mujj. donc waaw parce que yow wóor na ni yow lii dañ koy dugal sa xaalis. ak yomb. ak rapidité. Mhm. moo tax nga nga gaaw ci wut sa xaalis waaye nii too ko leer am loo xamante ne na ne lii moom boo ko jëndee doo ci am ëllëg jafe-jafe. Mhm. Mhm. surtout loolu moom bari na trop ci jëndkat yi. waaye nag it ça ne veut pas nga xamante ne ñoom dañoo taxaw armé pour di xaar ñooñu rek pour ñu dóor leen ah jéggi dem. war nañoo wax ñoom. surtout Sénégal a trop de courtage. gis boo dem liggéey boo gis am na ñu ne intermédiaire yi ne ci diggante bi ñoo xamante ne vraiment koo ci gis bu taxaw sax da ngay foog ne mooy li dëkk ba mm-hmm. dina wax nag waxu joo xamante ne moom tënk ko fenn lu bëgg rek nga génn ci sa poos loxoom mm-hmm. kon loolu tamit état war na cee taxawaat ñu assainiraat mm-hmm. vraiment euh, terrain bi service yi euh, population bi di accéder directement au service te bañ nga am intermédiaire intermédiaire yi ñoo indi lenteur yi mhm. ñoo indi kayit yu bon yi mhm. te yu bëree bëree bëree bëri ñoo koy def ñoom nag comme na ko waxee bëkk démb rek ñu nekk ci administration bi am nga xamante ne ñoom ko proposé wala di ko waxtaanee ak bi mhm. moo tax dañ fa teg koo xamante ne kat mooy mooy liggéey liggéey boobu waaye moom génn ci waaw bu problème amee nag mu taxaw fële moo tax gars yi boo demee ci kaso bi euh, euh, euh, nu mu tuddati démarche yi ñoo ko fees dell am na mën na yoo xamante ne nga ci biir toog. Mhm. bu dee fukk la juróom-ñaareel moo koy encaissé. Mhm. maa ngi leen di ziare di leen ne nañu am ak dal. Mhm. te tey tey dugg ci lu leer. lu wër. jaay dem jëf di ziare ñëpp. jërëjëf euh, ci am développement am na solo am na solo surtout système euh, ñi nga xamante ne ay intermédiaire système boobu moom vraiment dañ ko war a jëlee si si si Sénégal parce que nag li muy li muy yàq moo ëpp li muy defar te comme li muy wax rek service bu nekk bu doon yaa ngi liggéey ni nga war a liggéeyee. Mm-hmm. doo soxla ay intermédiaires yu ñëw di di def ay raccourcis. Mm-hmm. pour pour pour ñenn ñi nga xamante ne euh, mënuñu accéder ci service bi. Mm-hmm. ñu mën caa ñu mën caa accéder. donc loolu yëpp dafay wane euh, malaise boo xamante ne am na ci suñu service yi liggéey bi amaana dañ ko dul def ni ñu ko war a defee loolu mooy tax ba intermédiaires yi ñëw sam fa. nekk ñoo xamante ne dañuy lor askan bi parce que léeg-léeg ci prix bi ñu lay laaj rek ci ser benn service. amaana c'est un service gratuit. wala bokk euh, prix boobu. surtout toll noonu. mais dañ lay fay looloo xamante ne euh, dafay bari tout simplement parce que xamuloo te bëgg nga it ku la jàppale parce que mënu mënoo def démarche boobu. ah xoolal rek boo demee di loué ji kër rek. Mm-hmm. ñun laaj la ñetti weeru avance. te borom kër ga moom benn weer doo nga lay laaj. waaw ba pare nag la xaste jaan. laxaste jaan allo salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw benn Pape. Serigne Mbacke waaw Baye Serigne Mbacke. soxna Fatima. waaw. kon de. Ndiaye ñu ngi fi rek ñu ngi sant bu baax. waaw ñu ngi ziar di Ciamis sama Prida Masya Allah di Ciamis Masya Allah Magetak Nah, yore parti yëpp la. Masha Allah. jadi pamong. Ak tammo gën lañ. Hmm. Waa xam nga ci jamono tollu. Hmm. Ñett ñi kenn koy moom. Hmm. Jabar. Hmm. Benn jigéen jigéen benn jëkkër lay am. Hmm. Oto. Hmm. Kenn ko yilif. kuchide parti bi toogo ci benn bërëb ba rek dem taw jigéen buñ la ko maye muy soxna nga jëlee jàkka ji amoo jabar ñu bëgg ñëpp xam ni sa soxna la am këy yuñ la wut loo oto tam muñ la ko jaayee ba moom la ko jaay la ko demal nga miite ko ndax ñaar duñu moom oto kër itam noonu la demee bu fekkee ne liñ lay jaay amul borom si daanaka ci ni ngi nangañ day yombalal te nit ñi dañoo bëgg nii na ngeen. ndax ki ne ko jaay moo ko ki jën kam ki muy jën yomb la si wut. Mm-hmm. kon day yomb pour ñu nax la. Mm-hmm. tey oto moom ak kër ndax lay la nga yëpp oto yooyu ma ñoom benn oto bi def ak war koo fay. Mm-hmm. amul ku ko jaayan oto bi sax amul amul ka kooku kat amul dara. asa bu ko fayoon asa turam ci kàddu gi bi la lay fay. bu fekkee tam da ngaa jënd kër a ah, nga dem ba yàgg miitewoo ko ba dogal nga bàyyi koo di wax ko jaay ñu xool kayit yi muy déggoo ko itam da ngay ñàkk. da ngay moom bu ragalul yàlla lool. Mhm. day lekk sa a ndax jaay jaay jotoo jotoo jotoo kayit kër. kon fu ñu ko jaay ku ne ni ma ngi muy dëkk. ko jëndee rek am na ba ngay dem ñu changé ko si tur. Mhm. kon lu muy doxee. Mhm. leen leen nag si suuf Sénégal bi moom ah américain dañuy wax ni ña yi mooy alal. suuf ndox doom. suuf nag ak ndox. su nga gis ne moom njëriñ bi ne Sénégal di doon. ñu leen a am na ci ñoo xam ne dañu faa taxaw ab satu soxu ci bi mm-hmm. euh, yi ñu dëkk léegi mm-hmm. pour nga am air bu sa tool def mm-hmm. sa kër li ngay bay di ko dundee yaa koy bay loolu luy ñëpp mën nañu dund li ko normal koo mën xaalis tam nag soo sooy jënd na boo ci jotee rek nga mën faa def alal. wóor na ni kii yaa ko moom. waaye teewul su moom Sénégal nga jëmagum. ndax état yi fi nekkagum yëpp. ñoo waral ni ku jënd ku jënd suuf kat kër gee ngay dem direct. su waay ñu miital la ko. ku jënd lu nekk wut nañu fooxee nga ko miital. ah courtier yi nag li teew yoo xam ne tey jii ah ñooy taxaw ci buntu yi rek yéen seen i këyit. te la. am bi ma dugg ci biir nga dugg ci gaaw ci bunt bi. Mhm. dinaa am ci da ngaa am bunt bi nag loolu ñoom ñu la jàng ñoom ñu jàngat yi. Mhm. te loolu état war na di jël ay responsabilité ah ah ndax ki ñu embauché. Mhm. di ko fay mu yor ab pare war na mën ay jël responsabilité boo xam ne su xëyee dugg ci biir xool. ku ci nekk na bureau ci biir. bi nag kenn moomu ko foofu moom ko ko. waaye nag kaaraange yooyu moomu yenn service te borom bu nekk da ko war a doxal yaram day day bari na sax topp yi ñetti fan ñeenti fan juróomi fan mhm. kafa yi nekk war ko si ñu dafa nekk mhm. ci maire yi da ngay jël yoru këyit jógee Dakar mhm. ñëw ñun xool man Dakar laa jógee ñun la wàcc nañu neuf ah, da nga jógee Dakar wala léegi ku mel ni ngay jóg ci bunt bi dañ leen di cinq mille ñu defal ko léegi da koy jox cinq mille yooyu mooy mooy affaire bi nga ni naan ñeex bu métti bi jërëjëf merci <laughs> jërëjëf euh, Baye Serigne Bakki li mu wax a na solo. am na solo am na solo wallaay wallaay wallaay. Mhm. Fati gis nga pour wala ne nit ñi sax mm, ñi ci maanaam xamuñu daal. Mhm. dama benn bis koo xam ne ni ni ñu ko naxee. Mhm. waaye daañu ne ko moom day jaay eh, ci fi ñuy defaree ciment. Ah. genn kër gu ñuy defaree ciment. foofu lay liggéey. mën na kaa génneel tant de tonnes. waaw mu ne ko ah bon mu ne ko waaw léegi mu boole ko kenn ñu ànd ak moom. mu ne ko oto yaa ngi foofu camion yi da ngay ñëw bu ko defee ñu chargé la ñu ñu totaliser lépp daal. Mhm. léegi mu jox mu jox waa ji xaalis bi. Mhm. xam naa da koo jox ku mel ni. Euh, déedéet joxul waa ji. Mhm, ki mu àndal waaw Max Market la àndal. xam nga euh, ginnaaw xel mi neexul. Euh, mu jox ko xaalis bi ne ko soo ngeen demee ba service ba. dina la am ay kayit mu lay jox nga jox ko xaalis bi lu mu la wax rek nga def ko. waa ji ko waaw Max ànd nag moom ba ñu ñëw ca service ba. mu ne ko toogal fii xaar ma. dugg na ci biir waa ji dugg na ci biir. génnaat indi ay këyit ñoo jox ko. këyit yi waa xamul da koo for <laughs> xamul fu mu ko jëlee waaye daal am na ay këyit yu mu ñëw jox ko gis na ci ay kii yeeg yëpp daal waa ji xamul dara xel mi neexul. ah mu jël kayit yëpp lem mun ko voilà léegi kayit baa ngi nii defar nañ la décharge bi euh, bii nangam la bii sàngam la léegi da ngay toog xaar camion yi ñooy ànd ak yow euh, dem kay wañ million yep jox ko waaja romb romb génn dem mhm. wajjo tok tok na fa 9 h 10 h 11 h midi ba 14 h mhm. ba ñen ñenn employé liggéey son di wacc genn ben pa dal gis ne ki yàgg na fi de ne ko sëñ bi na nga def mun ko ma nga fi rek mun ko waaw yow mom euh, ko soxla won sa togaay bi yag na de mun ko diw mun ko diw kan mooy diw mu jaaraat ci tur bi bàyyi bi ne ko kooku xamuñu ko de mu ne ah kay mooy ki ma àndaloon tey suba te mu romb nii ba ba euh, fekk na ne ba ñu leen toogee nii sax après mu tàllal loxo noonu bàyyi bi ne ah kooku dañ koo xama <laughs> mu ne loo ko doon doyee mu ne dafa euh, dafa am euh, camion bu mu war a booleel mu yóbbul ñu ay sim mu si yóbbul ñu ay tonne ciment jox na ma kayit yi sax kayit yaa ngi nii. Hmm. baa bi ne ko ma xool kayit léegi su ba ko joxee kayit yi paa bi daa réer ne ko léegi doom lii da koo for ci poubelle bi ne fee. na yàlla maanaam pour wala ne nit ñi ñoom xamuñu sax boo jënd yenn yi yan yan këyit lañ la war a jox yan décharge lañ la a jox. yi àkk. mu lekk xaalis waa ji noonu mu lekk xaalis noonu te gisatuñ ko. mais moom itam gis nga moom moom. waaw ah? ki yëkkati xaalisam ànd boole ko waa ji kenn gënu koo doy waar. waaw ah? malheureusement. kenn gënu koo nagee noonu dafa am loo xamante ne li ci am développement wax sànq la. Mhm. maanaam dafa bëgg lu ah? lu yomb rek. moom bu gisee ne par exemple article sangam mi ngi jar ñaari junni. Mhm. mu gis ko ko koy jaayee junni day jënd. donc te xamul ne pot article bi mën naa périmer. Ah. wala mën naa bañ mën naa am ayib loo xamante ni boo ko jëndee xam ne baaxul. Mhm. mais yomb ba rek mooy tax ba dootoo xool dara. Mhm. dootoo xool ne pour pourtant lii mën naa bañ a baax. tey maa dem jënd ko ci prix normal. mais dañoo jàpp ne rek lu yomb rek daal. ci nga ah. war a dox ah. waaw loolu la ñuy def surtout nag yàlla yàlla yàlla ba muy promotion. daa koy juug fenn nag. naa wàññi nañ ko wàññi nañ ko daw si leen. mën nañ ko supporter ci lépp ba mu des si lekk nag. ah ah si lekk mais dañ koy faral di def ci lekk parce que ah. bu ñu duggee weeru koor lu baree bari day génn ñu wàññi ko. Mm-hmm. ay article yoo xam ne boo ko dee xool te sénégalais amul culture. xool date di xool date ah. moom da ngay ñëw rek jënd rek dem. sa morom ñëw jënd dem. Mm-hmm. ba waaj a jeexal moom yor xaalis bu bëree bëri ndekete li mu leen jaay dara baaxatu ci. xanaa xamoo man comprendre woon yenn solde yenn marchandise mais après euh, defe naa ni Max moom ma ko moo ma ko expliqué. Mhm. ginnaaw moom nekkoon na ci yooyu. mënuma mhm. seetlul foo fekk yooyu noonu ñuy jël di ko soldé seen date mooy waaj jeex. Mhm. ñoo xam ne bu ñu ko génnewul dañ ci perte. dañ ciy waaw léegi nag ñu am ci fukki dërëm. moo gën moo ko moo gën ñu sànni ko. waaw looloo tax waaw looloo tax. Euh, nañ ci bàyyi xel ñun moom tàmmuñ surtout nag koor gaa nga ñëw defaat. Sénégalais ci boppam moo bëgg lu ah, yomb rek koor gaa yomb la am na ay produits yoo xam ne day fees dell ci marché bi dell ci marché dinañ ci ñëw sax loolu gën cee waxtaan euh, ñu xool kii ba xam allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Aji Pape. waaw Assane Fall. maa ngi leen di ziare. loo yéen. waaw ah, Assane Fall waaw. Ah. yow de démb da ngaa xëcc ba sonn waay. fi ma nekk daanaka sama téléphone laa di lool sax amoo ci quoi. ndeysaan ndeysaan jërëjëf. waaw maa ngi ziar yaa soxna Fatima. macha lay delloo ziar bu baax. waa ji Pape li fa tax a dugg tey sama benn doom baay bu nekk Daaru Bayre. Mm-hmm. waaw. Baye Bas Fall. Mm-hmm. ndeysaan. sama sama doom baay la sama rakk la. waaw. mais démb daal la ma woo ne ma daal émission moom moom tool te nekk ci Daaru Bayra mhm. dañu koy teewlu macha allah wax dëgg yàlla sa soppe la tey moom a gën a tey moom a gën a jokk a tax a bëgg a dugg sax tey jii pour jàllale ko waaw ngeen jàllale ko ne waa Daaru Bayra ñoom ñoom ñoom ñoo ngi teewlu émission bi waaw waa Daaru Baye de jërëjëf jëf Baye Bas Fall jërëjëf Baye hmm. eh, ñoo ko déggandoo Baye Bas Fall Baye Bas Fall ko ci eh, soppe yi mi Bas Fall foofu ca Daaru Baye rek soppe yi soppe sa kii yegsi na Baye Bas eh, mi ngoog foofu ca mm, Assane Fall Assane Fall loo hmm, yéen ñu ngi lay a baax yóbbante Baye Bas Daaru Baye rek di la sant ci déglu bi ngay déglu ak di nga safoo 93 point 7 mi ngoog nul ñu waa Daaru Bayre ñoom ñëpp Daaru Bayre defe naa ni waa fu mu nekk de yoonu je pense bien que dafa war a nekk yoonu jasab de yoonu jasab su ma juumul euh, yoonu ci waawoon waaw man nag xam nga comme que man euh, bitim réew laa jóge ñëw fii ah waaw xanaa peut-être kii euh, rek waaw Assane su leeral ñu ko mm-hmm. xam nga xam nga yow da nga ma war di leeral yéen yi waaw comme que man bitim réew laa jóge ngeen décroché ma <laughs> daal di ma indi wax dëgg yàlla waaye noonu lañ la def yow <laughs> moo tax seen dëkk bi dara laaj xamul ndeysaan allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa eh, eh. rahmatulah. alors kilifa gi. Eh, waaw sëñ bi. <laughs> ah sëñ bi. tey toj na studio bi de. Ah? mu ne kas tey studio bi toj na de. vraiment ah, ah, am na koo xam ne na koo xam ne de fii daa ñëw rek mu song ko. vraiment ko wax. yow moom euh, tey moom. faaw ñu faaw ñu may la lii. waaw macha allah. waaw waaw wax yàlla xoolal uh-huh. moom de affaire boobu xoolal saa yu si ñëwee wax daf may bëgg a rey daf may sonal. jazakallah xayran allah waaw. baal yaa ab yar nag. <laughs> non yaa xamul rek moom laay wax de. déet waay saa yu ñëwee saa yu ñëwee itam nag. <laughs> waaw xoolal waaye loolu itam doy doy na war di. raa nag des raa nag des fois des fois ma jox ko mbuus joxaale la mbuus de. déedéet kay bon dama sama jot mbuus. <laughs> eh jox naa ko mbuus tey jii danaa jot mbuus tey jii danaa jot mbuus man. sax ma si jiitu de. ànd waay jox jox chaque jour ko dinaa ko jox ñaari mbuus. ah moom daal moom moom daal moom ma jiitu si mbuus mi moom. day na waar day na moom daa ñëw mu daal di jëm ut kaasu kafeem ñëw teg. waaw eh, parti yu bëri nag lii moo ko tas. parti yu bëri lii moo ko tas loo xamoon nit da ko. day na waar. macha allah ñu ngi bu baax a baax macha allah. tey moom oustaz ñëwul quoi. waaw oustaz moom moom dafa am ngànt. am ngànt ah dafa am ngànt bu fekkee teel naa par dina ñëw. incha allah ñu ngi baax nag ñu ngi koy nuyu baax ñu génn ñëpp ñoom moom sëñ Mbacke boobu. macha allah di nuyu président Alphonse di nuyu tam développement di nuyu yëpp. maa ngi nuyu tamit soxna si sama soxna maa ngi koy nuyu. macha allah soxna si ñu koy ziar bu baax a baax. maa ngi koy nuyu bu baax waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko nuyu bu baax. bi moom vraiment thème bu actualité muy thème bu am solo. Mm-hmm. kon ni ñu ko waxee rek comme sànq da ngeen wax ci courtier yi mais courtier yi xanaa si daf garaaw Thiès mais boo demoon Dakar mooy raw. oui foofu gën a garaaw. non da ngay gis ñoo xam ne dañuy xëy. wallaay toog seen la ñuy yor. waaw parce rafet. waaw xoolal dégg bu ñu dugg fa génn liggéey ñu dara nag. dara amuñu benn diplôme amuñu benn qualification. dara mais li ñuy am par weer yow mën nañ laa fay ñetti yoon. xam nga loolu nag xam nga loolu la mooy problème la moo ko yombal. ñuy liggéey ak ñoom ci bureau yi. ah bien sûr. tout parce que ñoom dañ ciy bëgg loolu. Mhm. parce que ñoom dañ ciy bëgg am am ci benn benn bénéfice boo xam ne benn xaalis boo xam ne day mhm. yomb. ba mhm. pare ñoom ñoom ñoo nekk bi moo tax léegi pour lijjanti kayit jafe parce que lijjanti parce que kayit bu yombee rek. ñoom ñoom ñoom seen liggéey boobu. dootul dox liggéey ba du dox. waaw moo tax ñoom wala dañuy def le tout yow da ngay ñëw wala kayit boo xam ne. dafay yomb am. mais soo leen laajee. dañ la koy jafeel jafeel jafeel. fay loolu ci lu bari. waaw nii la foog nga dem fële soo demee koy wàcc dugub bureau bi nga laaj kii ñooy affaire yi. bu ko defee yow da ngay découragé. da ngay découragé bu ko defee nga dox loo ko kii bi. waaw bu ko defee yan quoi mais loolu ma ko joxee. dinaa te moom xoolal di ci def deux minutes. pour lijjantil la ko. wallaahi te naan compliqué na. waaw man fii am na benn am na benn. bon bëgg ma wax tout daal benn société la. Mm. société tax benn loo xam ne tax ñun ñoo waxoon sénégalais yi. Mm. boo benn dinaa na benn maire boo xam ne buñ foofu la daan toog. léegi mm. taabal la yor nii rek. Mm-hmm. comme taabal li ay mango ay mm-hmm. biir ak affaire yooyu. te mm-hmm. dégg am na këyit boo xam ne soo ko bëggee liggéey di koy këyit yi. moom day ñëw jox ko téeméer. c'est vrai këyit bi xoolal 300 lañ koy liggéeyantee foofu. si biir foofu mu jël 200. moom moom këyit 200 moom koy moom te benn maire la de. foofu toog noonu rek. dañ koo ko koo jox ak kër boobu. pour jéem koo kii rek. Ah, jàppale jàppale ko rek. wala dégg naa man sax benn copain fekk mu am téere boobu mu ngi doon lijjanti loolu am na benn maire bi toog ci kilifa bi ni ma soo demee jox ko téeméer. Hmm. boo ko joxee taxaw moom mu dugg ci biir taf taf lijjanti la ko génne la ko. walaay teguñu ko fenn. te xoola deux cent bi moo koy moom. Hmm. mais téeméer trois cent bi la ñuy lijjantee kayit boobu. xam moo tax nga Sénégal. li fi nekk hmm, lépp lépp kenn mënu ko wax lépp. moo tax nga bu ñuy wax Sénégal dina dem ak di fu mu jëm dem jaaroon sax ci yoon bi. man dama man dama mos a toog. Mhm. boobu maa ngi woon Europe ma toogoon benn maire nii parce que maa ngi am benn dëkk ma doon def ñu toog nii si gis bi nii. Mhm. may xool dëkk bi rek di xool dëkk bi nawet moom dafa yàgg quoi. li mhm. ma ah sëñ bi yaa ngi xool dëkk bi rek. man ko waaw maa ngi koy xool dëkk bi man kay maa yéem dëkk bi dafa rafet dafa doy man ko am man Sénégal. tey at yii mun ma xoola mun ma xoola bul sonn bu nekk rek sama sama di ko xalaat. Sénégal. xoola jiw yi sax day dem. day dem wallaahi. waaw mu ne ma Sénégal jëmuñu béy mais après nag ngay doog comprendre. ñu nawet ñu nawet doon waxee. Mm-hmm. parce que ñun yoruñu mentalité boo xam ne war nañoo mën a defar réew. waaw ah, parce que mm-hmm. fii yàlla baax na rek. lu waay neex def. wallaay lu waay neex def. yow des fois da ngay def lu baax sax. li mm-hmm. ñi am ñoo xam ne lay mere. wallaahi la dañ may mere parce que dañ naan kii dafa soof mhm. kii dafa bëgg affaire tubaab mhm. kii daf mel ni yow tubaab boobu moo la gën mhm. ah. te dañoo xamul tubaab bi tubaab bi du ñu dara ah. tubaab bi wallaahi la ñoo leen gën ah. fuuf fuuf sax xoolal duñ seen tax seen morom mais dañoo ëpp fulla dañoo bëgg seen bopp parce dañ koy appliqué wala dañ ko appliqué dañ jaar fi ñu war a jaar avancé suñ ko appliqué problème rek mu tax avancé parce que lu loo gis ci bi ay loi la mais Sénégal malheureusement ma yi zéro ñoom lan lañ am béréb béréb kay mm-hmm. béréb bi appliqué ay loi teg ay loi waaw lii lii woon lii ñaari fan ñett jeex na te masque yi masque yi waaw waa police police yi dañuy jékki-jékki rek ñu juux ci marché bi mm-hmm. ñëw jàpp jàpp jàpp jàpp mën nañu toog deux jours trois jours ba quatre jours doo mais c'est n'importe quoi loo xam daal ñun ban dëkk la ñu nekk. Mhm. loo xam ban dëkk la ñu nekk lu waay neex def bureau yi dafa liggéey day mel ni marché les bureaux yi dafa war a marché day fees dell wala bureau da ngay gis benn société boo xam ne mhm. wala cinq personnes noo fay liggéey mhm. mais du ma quarante personnes nañ dañ fa nekk ñu fay nekk ñëpp presque benn liggéey ko dugg génn dugg ci bureau génn dugg ci bureau génn ba man daal doo comprendre daal rawatina maire yi waaw bu la nekk da léegi daa yomb moom ak ak xoolal maire yi. xoolal maire ak yooyu xoolal ay genre fu ñuy lijjanti affaire kayitu suuf ak yooyu. Ah. day fees dell te du fay teg cent personnes yi dix personnes ñoo fay liggéey ñeneen ñëpp quatre-vingt-dix personnes yëpp kenn liggéeyu ko. ñu mm-hmm. dugg di génn yor jaare seen oto bu rafet. Mm-hmm. nga dugg foog ni ñoom ñooy patron bi te fekk na duñu dara. Mm-hmm. ñooñu nag li ñëw nax la yow man ku mel ni man. ñëw bëgg bëgg lu jënd benn kayitu kër wala dara ñëw gis benn waaye sol costume bu rafet ñëw toog. da fekkee ab dafa da ngay foog ni kii kii moom mooy moom mooy chef. moom mooy chef bi. xam nga ngeen ñëw jox ko say kayit ndekete yow li ñu koy jox moom. xam nga am lu mu ci dara daal hmm. dafay doy na waat quoi. foog ñu foog ñu gérer waat suñu administration bi. voilà ñun ñooy ñan. sinon bu ñu ko defoon rek du ñu dem quoi. Hmm. waaw ah, vraiment maa ngi leen sant di leen gërëm baax na. merci beaucoup waaw ah, ñoo gën a kontaan am solo. Euh, Darou Bayre. Hmm. balaa ma ñëw ci propos Max Maguette. waaw nee na ma nga nekk euh, yoonu Zag ba booru Jasab. am na benn daara bu nekk foofu xaw ma mooy Darou Bayre foofu la mu ngoog macha allah mu ngoog merci beaucoup ci leeral kon leer na waaw foofu mokk na rumba mokk na waaw ginnaaw man euh, dëkkuma fi mhm. euh, ma xamee ko noonu gis nga fàtte max ah. màgg li mu wax ni ah. euh, ñaari dafa am ci réew mi mhm. moo tax ñu am problème mooy am na yoo xam ne seeni loi seeni taxi ñu ngi fi mhm. waaye ñun ñoo ca tàmm jóg ñu di ca dem loo wax ñu bàyyi ak yàlla loo wax ñu déet seetal seetal dëkkandoo seetal nàngam seetal sàngam fàtte dafa nga ne séy nit nga séy nit mu toog ay ati at lu ma juróom-benn at. Mm-hmm. nekkatu leen mu abandonné la. Mm-hmm. toppatoowul la toppatoowul say doom. Mm-hmm. boo ko ñaanee baat mu bañ. mu bañ te moom takk na yeneen jabar. nit ñi naan la bu ko yóbbu yoon. te yow mu leela lii la dal yoon ci mën dara. yoon ci mën dara doo ko mës a lijjanti. waaw doo ko lijjanti yoon tànk yóbbuwoo ko ci yoon. waaw ñu dindi ko. waaw du mës a sotti. waaw léegi nag léegi nag tey jii. xam nga am na ay loi mais ñun ñoo tàmm ay noon na yoon de moom koo fa yóbbu sa noon la. benn bi noonu beneen bi tamit ñu tàmmul ñu aussi di ñu di voté ay loi yoo xam ne xanaa moo bëri na fii yu nit naan waaw lii dafa a kii fekk na loi yooyu. bañ ko voté ci réew a yàq. waaye nag dañ koo jël. am fu xam nga bu ñu am na loi boo xamante ne bi day tere booy ngénte wala ngay def ay ay mariage wala yooyu nga nga yàq li li ñuy def nii. waaw loi da koo tere. Ah, yàq xaalis bi. puukare bi ndukkal yi foor yeeg yooyu yàq yi waaw. yooyu loi da koo tere. Hmm. te pourtant loolu loi boobu ñenn ñoo ko xam ñaata ñoo ko xam. wallaay wallaay. loolu moo lay won tey Sénégal suñu arsenal juridique suñu suñu suñu disposition réglementaire. Hmm, hmm. lépp la jël en charge. waaw amul lu mu bàyyi. waaw waaye nag mais malheureusement ko dul xam. waaw euh, tey te xam ko. waaw bu ñu mu doog a mën a applicable. doo doog a mën a nekk loo xam ne dañu koy appliqué. parce que bu boobaa nit ki bu fekkente ne tooñ nañ ko ci loolu dina xam ne ah lii kon yoon tere na ko. war naa a dem ci yoon yoon àtte mag yi. waaw mais bu fekkee xamoo ko de loi ba fa lay yem. léegi nag ñenn ñi xamuñu ko. Mhm. te ñenn ci ñoom ña ko xamoo ko si néew ñoom ñoo dàq yàq ñëpp. Mhm. ah loolu <laughs> moo tax àtte ko du yomb waaw ñenn mooy loolu waaw ñenn ñi ko xamu ko ak si néew. dem nañ fii ci Ngunjaan. Mhm. ñu ne foofu dañ fay taxawal benn brigade boo xamante ne bii jigéen ñee ko teg de. ñu ne dañuy tere euh, xew yu nga xamante ne dañuy yàq ay ay ay. di ngénte wala wala wala di tudd wala di def yenn yenn xew yi mhm. di ca yàq-yàq yu bari yi ñu ànd ceeg gendarmerie euh, jigéen ñi seen kuréel gi toog ñu ne léegi dañuy fexe teg ay charte yoo xamante ne charte yi ku ko wàcc ñu yoon dal sa kaw mhm. mais loolu mujjul fenn wallaay du mujj fen loo cay gis mooy ña nga xam ne ñoo koy njëkk a ñoom ñoo koy def waaw waaw ña ca des topp ca wallaay ndeysaan yàlla bu muy ngénteel taaw nag waaw <laughs> réew mi nga xam loo ñu ne noo ngénteel taaw moom loo am def ci. waaw waaw waaw waaw. dafa am zone yoo xamante ne foofa surtout boo fay takk jabar la taxaw ñu jóg ca booy takk jabar. <laughs> Hmm. daanaka rek yaay ja mooy def lépp ca ca ca néeg ba. ba ci chambre à ba doomam di tëdd. yaay ja moo koy dem maanaam yaayu ndaw sax. yaayu ndaw sax. sa doom. bete kuy jaay lu chambre à coucher. boole ci lépp lu ndaw sa soxla ca biir kër gi yaa koy joxe. bete kuy jaay lu lamb te nag chambre à bi du doon du doon caaxaan de. Hmm. chambre à bu baax lay doon. waaw boo xamante ne bu cher lay doon bu ko defee nag loo ciy gis jigéen ñëpp nga ndakaaru di fóotal. waaw waaw parce nga dajale loo xamante ne booy maye sa doom nga mën ko koo jox. wallaahi sinon nga sinon nga am ci problème looloo taxoon ne ñu ne lii foog ñu jóg ci ñu dindi ko parce que hmm. baaxul. Hmm. voilà dëgg la am na solo xanaa xamoon ni bëri na faati ku ku am dara da dañ koj-kojal démb di denc mm-hmm, mm-hmm. di sacc bopam di denc mm-hmm. yow mi nga xamni nak da nga dañ jël di yak di passer passer te pourtant yow la nga dañ am mo upp fouf mom limu dañ am tout à fait waye nak dañ ñoo gëm ay yenn pratique yo xamni jëmele wu rew kanam wallahi suñu rew mi xam nga man dama doon won sax ñun dañoo ko di dox mo tax duñ gaaw yegg benn way neena na ma nag euh, bàyyi di wax <laughs> dañoo ko man ko legul mooy mu ni dañoo samp suñu bop ci suuf jël suñu tank di wàññeeku ko <laughs> nee neena suñu bop yi mo ne ci suuf suñu tànk yi da ca kaw <laughs> moo ko wëññee ko bàyyi ma. ok allo salaamaaleykum. waaye salaamaaleykum. ñu ngi président. waaye maa ngi leen di ziar. ça alhamdulilah. waaw mais waaw eh ça c'est le président. waaw lu bees. maa ngi lay ziar bu alhamdulilah alhamdulilah. Ah, boobu dafa fekkoon xam naa may may sieste. may sieste waaw. ah da ngay ah déet yàgg naa nag. <laughs> daawul sieste de. waaw ah, daawul sieste daa ku koy force sieste. maa ngi nuyu Max Maga Diop. macha allah eh, di nuyu Thiam développement. Hmm. ak eh, eh, l'autre la. Pape Sénégal. Hmm. Pape Sénégal. ay ñoom ñoom maa ngi leen nuyu ak Serigne Mbacke Ndiaye. Hmm. mais Fatima. mais sama ministre moom euh, Max nakaate na ah lu mu def noonu. ah maa ngi nuyu na ko ah waaw waaw. wax wax wax dëgg yàlla. li li li ndax ba sañ koo wax. Ah, war a nuyu. waaw damaa kontaan ci day ragal day ragal su demee ñu fanaan la fanaanal ko. ci kaw man damaa kontaan ci waa ji sax. <laughs> macha allah. waaw <laughs> eh, dama nuyu soxna si bu baax. am na waaw nag yow lay sànni xeer aussi ah. waaw <laughs> ah, c'est ça xam naa ne man lay jaarwaale quoi. da nga war a góorgóorlu. Eh, parti yow sa parti bi ci kenn respecté président fa nga góorgóorlu waaye. Eh, président yow góorgóorlu. nag yow tam ñu jàppale la am soxna. yow am na leen décision yow. man mii de. <laughs> waaw ah, mais maa ngi sant bu baax waaw. ñu ngi lay di delloo cant bu baax waaw sànq da nga ne courtier dañuy laaj trois mois. Mhm. Ah. Eh, te trois mois yi booy xool benn mois bi ci eh, waa ji lay seete quoi. Mhm. loolu laay dëggal quoi. Mhm. man loo naaf benn kër bu ko naaf lee benn kër. mu ne da ngay joxe eh, trois mois. benn bi avance la xaw ma benn bi caution. benn bi xaw ma prestation xaw ma. Hmm. mooy sa rek. waaw ma ne ko lan mooy prestation. waaw a yàlla. mu ne ma prestation moom moom démarche bi. waaw ci man a féete quoi. waaw ma ne ko a ah, mais lay féete ci yow. Mhm. a non parce man ma ko yow kay bu fekkee lan lay neexal. Mhm. xanaa kay benn kër gi moo la war a neexal. xanaa paa man li nga xam ah, man lii luy war ma la neexal. Mhm. ah man man du man maa lay fay yow kii lay liggéeyal moo la war a fay. xam nga. waaw ah prendre ou ko ma ne ko naa a sa léegi. xam mhm. nga ma bàyyi. kon mhm. kay nag man damaa bëri a damaa bëri pax. Mhm. ma bàyyi ko yoxal ko mu dem ma topp si ginnaaw. ma topp ko topp ko mu dem dugg ci borom kër gi ma bàyyi bu mu génn ma dugg ci borom kër gi. ne ko nuyoon tënk quoi xam nga laaj ko ba xam moom moom kaw mun a maa man ak man foofu laa bëgg a léegi quoi. ñu expliqué. xool benn mois la ma laaj. benn mois la ma laaj. Mhm. moo tax du ma ñu jaar si ñoom. teguñu ko si man man nan la mën a ñëwee di kër Fatima. Mhm. di fay di ko jox moom li ngay ci xool li ngay fay loolu nga koy joxe bu dee cent mille la moom cent mille nga koy jox. loolu tamit nag. yow tëjee yow fan la tegu. Mhm. teguwul fenn. moo am de teguwul fenn. wallaay teguwul fenn. teguwul fenn quoi. wallaay li ñuy def dara baaxu ci. wallaay dara baaxu ci. moom mooy yow Pape naa. su ma la nga jël nag. Hmm? wa ah. dama la woo ci kanam boo wàccee. fexeel ba da nga xam yan waxtu nga may woo rek. waaw ah, baax na. waaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Hmm. gis nga Fatou est-ce que xam nga ne am na ñoo xam ne xam nga lan mooy seen euh, seen ci yenn service yi. Hmm. moom mooy xaritu directeur bi. Hmm, Ah, xaritu directeur waaw waaw waaw euh, waaw maanaam ki lu mu bëgg ci moom mu yomb te moom ba ah. liggéeyu fa kat. liggéeyu fa. Euh, Mouhamadou Ndiaye yu Daabaya ah, ñu xool ko ba xam. Uh-huh. defe naa ne mi ngi ci euh, ligne bi. mi ngi ma xool ko. Uh-huh. ba xam. allo. waaw maa ngi lay ziar salaamaaleykum. salaam wa ñu lay fay ñu lay fay. maa ngi ziar de euh, oustaz xam naa ñëwul mais maa ngi koy ziar baax oustaz waaw dafa am nga léegi nag oustaz day dugg rek daanaka euh, du bëgg a dugg sax ndax oustaz moom bu duggee rek wax jeex mm-hmm, oustaz moom yàlla kenn mësu gis kenn gisul ku mel ni moom mm-hmm, li muy wax leer na nañ nañ nañ mm-hmm. waaye li muy wax jamono jamono ko dundul gis nga ñi ngeen di wax yëpp xam nga lu koy kenn sonalul loo sonal kon ko gis nga ñi gis nga mbir mi ma nga dafa dee bañ bañ xaar damay dem voyage ak Guinée Conakry. Mhm. di gis yu ma jaaxal ci policiers yeeg ma laaj leen ñu ne ah. ginnaaw ñi ci kaw ay milliards la ñuy lekk mun ñoo lekk milliards. Mhm. foo ñuy lekk million. ñu lekk cinq cent. loolu sama policiers yi wax ak homme de loi yi ci yoon bi. Mhm. est-ce que. fii la boo jógee ci dem Guinée côté da ngay arrangé booy jox ma taa nga fay ko moom mooy res mooy res bagage yi da ngay dem ba ngay ñëw bu demee nag ba mbir métti koy loxo nag mu mu lépp lépp lépp ay métti. gis nga alxuraan waxoon rek mooy dëgg. bu mm-hmm. leen àttee te àttewu leen ci alxuraan. wallaahi ay fenkat ngeen ay naa fekk ngeen ay kéefar ngeen. Mm-hmm. dund gu métti ngeen kii lépp la ko yan ci salaat rek ne képp kuy wuruj. Mm-hmm. bokkoo ci ñoom. bëccëg waaye gëmuñu ragaluñu yàlla. li ngay daal li ñu fexe ba jël ko rek dem seen yoon. xalaat yi ñu ëllëg dañuy dañuy seen borom xalaat yi ñu ëllëg. day xool jamono bii waa ji pare. xool jamono bii ñu dee gi pare. wala problème yi ñu bëri. Mhm. nit yàlla yàgg yi réew mi ñëpp di ñaan mënuñ ci feebar bi dara. Mhm. yàlla dir ci ñi leen soog. Mhm. at mi passé. homme d'état yi loon rek ñu ponkal waaye at mi daa ni gaa yi baax yi lay jël. kon mu ci dërëm. kon ku leen di ku leen di mënal naa la leen lu àndandoo digal lu baax ñu góorgóorlu day na suñu beneen Cheikh Mawone Ndiaye daal suñu maam nee na. ab sëriñ bu ramu taalibe jaaj nan la koy ramoo. ñu ne ko lañ koy ramoo xam ne day àndandoo moom xamal ko di ko jëf. nee na suñu faatoo ñoom ñaar lu baax loolu jëriñ la mm-hmm. waaye nee na àndandoo sa taalibe rek naan ko du problème lu mu yor jox li nga laa ko du problème ba ëllëg waaw mm-hmm. ah, di nee na boo léegee wóorul de problème day am de gerte yan si nee di xaw ma mm-hmm. demaguñu àllaaxira waaye nee àdduna daal sëñ si af si nee na daal li ma leer mooy àdduna ñoom mais ñoom di àdduna ñu ngi ñu ngi encaissé àllaaxira na demagul. Mm. ma ne ko ah daanaka di àdduna ko teg yéen a bu ne àllaaxira ku góorgóorlu dee di nga ko rëcc. wallaay wallaay dëgg la boo gisee mbir yi tàmbale yi ca kaw la bañ. bu ñu la ne mbir yi ay wax ji ndax ñii ñuy bëgg a ñoo leen falta soo fi dem day métti. Mm. Mm. benn waaye da lay tooñ nga dem tribunal ëpp ko doole mu jël avocat daal lay dum waaw yéen de salaa sama masaa te benn waaye bi mu àttee. mu jox keneen ci dëgg. saaba yi ni ko ah, yaa rasulullah ki nga jox dëgg de. keneen kee Mm-hmm. dama yaakaar rek parce que mm-hmm. dama defoon kii lay borom lay rëy rëy yi moom moom dëgg. Mm-hmm. waaye nag yante waa leen ñëw mun leen ku ci lay bañ jox la loo moom yomal xiyaam dinañ la boole li nga jël la na. buuri àddina la ñoom su seen pexe yeeg seen tappale yi lu ñu yor nga bokk ak ñoom bu yomal a ne sëñ Tuubaa ne fu ñu leen dimaa duma la. jërëjëf wasalaam. jërëjëf euh, Mouhamadou Ndiaye Diouf daa bàyyi euh, ndeysaan di ko jaajëfal bu a baax. allo salaamaaleykum. waaw dégg nga waaw alo allo oui. waaye di Pape ñoo ngi ziar. ñoo ngi delloo ziar baax a baax. ana waa kër gi. alhamdulilah baax a baax. jërëjëf. am na solo lool. kooku kana. Alassane Diop Thiès. Alassane Diop Thiès. waaw. Mhm. incha allah jërëjëf. macha euh, waaye wàllu affaire réew mi moom pour ni muy doxee ci wàllu këyit. Mhm. wax dëgg yàlla. li réew mi ñàkk liggéey daal moo tax. boo mhm. fi dem comme ab marché lay doon. Mhm. ñooñu nag ñoo koy jafe. Mhm. mais temps du ma yooyu ñooñu ba di àgg ca kilifa ga. danaa la ah mais man ngaa ñëw temps bu ñëwatee ñëwal rek. waaye nag ci yoon yi nga dul am fooy jaar ba jàll. ndax branche yi bari fa. boo ñëw jóge fu la xamoo li xew. boo gis mu yori rek danaan fa lay liggéey. fekk liggéey fa. dañuy lijjanti rek. man mi maa yëngu ci oto yi. Mm-hmm. waaye bi may toog. teg mm-hmm. naa lu mat quatre cent et quelques ay russi. <laughs> ci ndax lan bañ affaire yooyu. ci sa carrière yëpp. waaw non du sama carrière rek ay quelques mois ma daw benn tracé roso. Mm-hmm. ci bagage yi ma tuutee nga fay. su tuutiwul nga fay. mais ndax lan bëgg nga joxe daal man ko man teewuñ def ko ci kees gi rek. soo ma ko yàqalee te loi bi néewul épaisseur bi. Mm-hmm. mat na. Mm-hmm. yaa ma ko ameel. Mm-hmm. ñu def ko ci kees yooyu. loolu de xanaa boo ko calculé bari yee bari na moom dama dagg jàll laa waaye lii problème. soo demee ba àgg foofu fa nga jëmi duñ la àttee lu kii lu tege si yoon daal lu nekk sa xol. da ngay mujj rek ni su su su ma kii rek ma def ci jàdd quoi. Ah, mooy lu sax doon wax rek jënd sa. Ah. vraiment naa taayee jàdd rek ndax dama jàddee fële dem di wuti ay dëgg yooyu doo ko am mm. da ngay tàddeel sa bopp kon mm-hmm. léegi see boo nga far continuer dem mm-hmm. euh, slogan bi ñuy wax nag naan Sénégal mm-hmm. kenn mën ko xar ñaar xar nañ ko téeméer yoon wala juróomi junni yoon te ñu ko ndax man su ma demee ba waaji paa ma gis yow sa intérêt ngay avancé ma këddal kon àndatuñu di ana lu fi sëriñ yi bàyyi woon pour yàqal yow nga toog man du ma dem. Mm. doo dem mm-hmm. loolu moo fi entreprise bu mag ak bu ndaw ak yëpp su ñu indee benn loi yu mag yi am yu bëri àttan nañ ko. Mm-hmm. mais duñu xool ñu ndaw yi. danaa mm-hmm. mën nañoo dem rek ñu ndaw yi suuf. loolu la ba ci liggéey bu ndaw ndawaan yi. yëpp ba ci kër yi. kon léegi xaruñu <laughs> ñaata yoon lañ ñu xar. wallaahi naan kenn waru koo xar. Mhm. kenn waru koo xar ñaar. Mhm. waaye kenn mënu koo xar ñaar. Mhm. xar nañ ko yàgg na. dëgg la parce que ko. dëgg la ba sànni jàll ba sax. jërëjëf ndax fa ñu sëñ sëriñ yi tegoon. su ma gisee lu métti waa ji Pape ma ànd ci lu ne bàyyi lépp pour défendre ko. ñu ànd léegi amatul dañuy duma kële ñii di seet an feere. ñii doon ñee di seet an feere. ba mu daj ñëpp ñaan man su may woon teel a def mais kon ana li ñuy li fi ana njàmbaar gi fi nekkoon ci maam anam bañ bi fi nekkoon ci maan mm-hmm. mais ñëpp dañoo toog mel ni ñu jaaxle mm-hmm. damaa yaakaar ne nag su ne waa ji pap mm-hmm. fétiche doon dafa jàpp Sénégal gaa yëpp a tiit talatuñu jaar fétiche at yee passé daa mel ni moo naawal xel yi gaa yi kenn newutu teewoo ñu sangatu ji nag. jërëjëf <laughs> jërëjëf Alassane eh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Alassane Diop. Mm, hmm? eh, am na solo dafa mm-hmm. mel ni ab auditeur la bu eh, bu dolli si ci waxtaan wi. Mm-hmm. xalaat yi muy nii yëpp am na solo faat lii rek la ñu soxla ci ëtt yi. Uh-huh, xam nga maa ngi lay wax ne la. Mm-hmm. am na ñoo xam ni. Euh, boo soxlaa dara ci benn service. Mm. dañ naan la gisal diw moo ci gën a gaaw. Mm. nga ne ah foofu lay liggéey ñu ne déedéet xaritu euh, kii bi la. xaritu directeur bi waaw xaritu directeur bi. Ah, que xaritu directeur bi. war naa mën a dugg ci service ba di fa am lenn. lu hmm? fay dox wax dëgg yàlla. Ah, man ah waaw léegi nag wala wala kooku jabaram jabaram. wala kooku xaritu jabaram la. xaritu jabaram la waaw. dafa sore sax. Ah, waaw te mu ñëw di am sa entreprise. wala ci sa ci sa te yow lépp loo xam ne kayit yi maanaam li ngay wuti ji yoon laaj na la ko ci yaa ngi ak moom wutal kayit sàngam wutal lii jëndal timbre jëndal lii waaye daal pour mu gaaw nga am ko daar daar daar moom gisal diw te diw moomu liggéeyu fa mhm. beneen bi mooy euh, ñu nekk ci réew moo xam ne li la ko waxee woon démb rek bu koo xam ne bu ñu ko falee fenn dañ naan eh diw di léegi affaire baax na mhm. au lieu ñu ne affaire am baax na ndax daa am liggéey bu muy jaamoo yàlla waaw liggéey digne de son nom bu muy jaamoo yàlla mhm. waaye affaire baax na ndax foofu ñu ko teg su góorgóorloo balaa ata jot dina tabax kër wala waaw ah mais noonu lay doxee Sénégal gis nga système bi boo gisee ay ay système yi ñuy dénoncé intermédiation yi am ci diggante ñenn ñi ak ak yenn service yi dafa wane ne service ba ci boppam moo doxul dama war a doxee mhm. mais bu fekkonte woon ne comme ni ko Serigne Mbacke Ndiaye waxee bu fekkonte woon ne service bi dox na ni mu war a doxee rek buntu du am pour kii mhm. kii moom day dee ci saasi mhm. donc pour dire que daal bu ñu ko bëggee jëlee fii faaw service bu nekk li nga war a jox askan wi ah seq kook ñoom nga di ko mm. def ci ci na nga ko war a defee mm. amul xaaj ak seen parce que xaaj ak seen bi ñuy indi ci mbir yi mu nga xaw a compliqué mm-hmm. boo xamee nit ki nga ne ko ngoonee ñëwal boo boo ko xamul mm. nga ne ko demal ba ngoon boo ko xamee nga ne ko nga ne ko taxawal ma defaral la loolu mm-hmm. loolu dafa ñaaw mm-hmm. dafa ñaaw te teguwul fenn te jàpp naa ne loolu dafay gën a tax rek système yi di fi sax Sénégal nekk ci yoon woo xamante ne comme ni nga ko waxee rek sol ay daal di dellu ginnaaw la ñuy def loolu la euh, te gis nga tamit euh, béréb yi ñi nga xam ne ñoo fay rax maanaam dolli béréb ya xam nga doomi bërebi ak doli bërebi day am mm-hmm, mm-hmm. euh, doli bërebi nga xam ne ñoo fay rax te liggéeyuñ fa dara mm-hmm. ñaari ñooy indi njom bi xam nga mus ko netal fi neena la dem na fi benn hôpital bo xam ne ca ndakaaru bobu lamay metti do euh, do tal ndax ki mom la ki waaja la du waja waja dal sen naa ko liñ naan ku sol blouse blanche nek hôpital hôpital je régional nak sax loolu sax da na fi am de ñep sol blouse blanche do xamé ñi raxas ak ñi fobé rek ñi balé waaw ko gis rek fokk nit ci ñom la bok te nit ki hôpital lay liggéey tan yi dalena yomb waaw wax dëgg yàlla mairie laay liggéey temps yi dalee na yomb da ngay wax service de nettoiement balaa ne waa naka laa dugg mu seen ma rek xam naa gis ni boy baa nga souffrir waa ji jàdd ne ma ça va man ko ça va bee mu ne ma lan la man ko docteur bi soxla rek mu ma ci salle ma dal ma expliquer ko sama gémmiñ gi daal nii naa naa wax wax wax mu ne ah bon d' accord d' accord d' accord xam nga rek ndeysaan mu ne est ce que suñu borom docteur bi ma rek daal di ne xaaral ma bindal la kayit ne ma deux mille la ma yëkkati jox ko. yaay ndeysaan mu xaw a jël baaraamam rek dem xam naa dugg na ci benn bureau euh, ñaan fa bant yooyu mooy jamonoy bant yooyu ñetti salaami naan la waxal ah. ah mm. booy yooyu noonu. Mm. <laughs> wallaay ndeysaan. kon ne waa ah. am na la am na ma ma faa ko nag. ndeysaan waaw mu ah, bindal ordonnance waaw wax la ne ma ah ba sonn ndeysaan. daan may mm. bindalub kayit. Mm-hmm. ne ma dawal jënd ko ma yagar yagar dem ca pharmacie ba. Mm-hmm. may naka laa yegg jox ko femme bi jaay ci pharmacie bi mu ne ma boroom garab gi ñaata weer la am ma ne ko ñaata weer non lii maa ndaw si rey na ma <laughs> garabu jigéenu wérul la de moom laay laaj kooku ci ñaata weer la toll. <laughs> mu ne ma yow sëñ bi kan moo la bindal lii <laughs> sama xol bi jeex ba waaju jooy ma ne non lii dama ko bàyyi ma delluwaat hôpital ba te gisuma waaja doo ko gis. bisimilah boo ko gisee. Ah. kooku ñëw na dóor la dem. <laughs> Ah, te noonu lay dooree ñeneen. woo na yàlla waaye nag dañ ko sa mës a jàpp. ah bien sûr bu ko bàyyiwul di ah. dañ ko mës a jàpp wala keneen jàpp ko. béréb yëpp loola fa am. bëri na kuy ñëw di kaas benn service jàmbur. waaw euh, service sàngam boo fa demee pour nga am kayit da ngay sonn léegi hmm. léeg nag man li ma gën a metti mhm. mooy wallaay yi nit ñuy wax dëgg la. Eh. te directeur bi xam na ko. xam na ko kay. mais du ci wax de. day bàyyi ba mbir mi éclaté am coow bu ko defee mu génn def benn point de presse waaw loolu moom jaaduwul ndax fi ku fiy ñëw da war a lii da war a laa. Mhm. loolu ñu naan directeur baa ngay raxas lu muy raxas. bàyyi ba kër ga takk tilim ba oos muy soog a raxas. Mhm. Hmm, bu ko defee nag bëgg a jël lépp nag jéñ ko ñële te fekk na moom moo yor responsabilité bi. amul benn kilifa bu war a jiite bërëb faat mhm. am luy xew sa kër suba ba ngoon jot te doo ko yëg waaw bu dee doo ko yëg defoo lii yoon. defoo lii yoon defoo lii parce que am nga ay conseils yoo xam ne seen liggéey loolu la waroon a nekk. Mhm. yow ngay génne di saytu liggéey bi xool lan la li xew lu mu. mais doo def dara mais dara nekk ci service rek te en fait téyewoo service bi la rek. Ah, da nga fay toog pour bu weer dee ñu fay la sa xaalis. donc kese jéemuloo xalaat jéemoo xool fay yi fi nekk nan laay def ba réglé ko jéemuloo xalaat yan solution laay indi pour service bi gën a performant jéemoo xool ñii ñëw ci service bi. Hmm. nan laay def pour ku ñëw rek.

bu ko defee ña fa nekk tamit doo leen mën a ne ndong sa wala. Ah. ndaxte kenn ku ci nekk dalay xool di la copier. waaw ah, donc waaw donc. boo indee le mauvais exemple ñu jël le mauvais exemple boo indee le bon exemple ñu jël ko. wallaahi da ngay jub rek gis a bu ñuy soog a fal njiit lu bees ñu ne ah temps yi kër gi kat dafa xaw kii ndax dañoo changé kii. Mm-hmm. waaw léegi nañ leen dinañ def attention loolu lépp pour dëggal li nga pour jàng njiit li waaw ñu xool ko rek waaw xool rythme bi muy doxee xool nangam sangam man am na fi benn hôpital boo xam ni ba njëkk la ñëwee ñi ëpp ci personnel ba dañ leen yóbbu cuisine hmm? waaw personnel ba dañ soigné laa wax cuisine lañ leen yóbbu barki <laughs> ah, ah, ah alxuraan comme ay cuisinier doon waaw maa la ko ah, waaw ñii ci porte bi la leen yóbbu ñii ci cuisine hmm? ah waaw mi ngi fii ci dëkk bi allo salaamaaleykum salaamaaleykum waa ñu faam bi bi na nga def oh, maa ngi rek di lay ziar ak di màggal jërëjëf bilaay grand dal kontaan naa yow jërëjëf waaw fu mburos mi nekk nag yow nag il faut ma lay ziar ak di màggal rek oh, moo tax nag vraiment sa thème yi moom am na solo quoi mm-hmm. waaw gars yëpp daal kontaan nañ ci yow quoi mm-hmm. vraiment waxtaan bi nag lu mu neex moo tax africain bu gëm boppam moom day fas yéene gàttal quoi waaye mu waxtaan waxtaan mm-hmm. waaw di la ñaanal yàlla jàmm ak xéwal ak tawfeex jaajëf kon ñu yeewu ñu ñëwee def jàmm jërëjëf africain bi gëm boppam africain bi gëm boppam. africain xam naa ne ku ko woo ci local moom xam naa ne. Mm-hmm. Ah, de moom africain la. waaw moom ne daal consommé local daal moom gis naa ko mu koy def moom. waaw waaw xam naa ne daal euh, village artisanal. Mm-hmm. consommé local. Ah, waaw. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax produit produit locaux yi moom dañ ko war a promouvoir. madame Sylla borom euh, bio. Mm-hmm. moom it euh, foofu ci yoonu INDR ñu ngi koy ziar. Euh, macha allah waaw waaw waaw Faati Faati sama sama madame bi nag bëgg naa nga woo ko de moom madame Sylla. dëgg yàlla hmm? dëgg yàlla damay xaw naa ci am kersa tuuti. Ah, su ma génnee léegi dinaa ko. incha allah bul wax dara ah, su ma génnee léegi dinaa ko woo allah xool ci lu mu nekk sama mère euh, di di di nuyu waa marché ngelaw. Mhm. waa marché ngelaw ñoom ñu ngi leen di nuyu. ndax ñu ngi ñuy bàyyi xel marché ngelaw waaw ñoom ñëpp dëgg yàlla bu waxtu wi jotee ña nga ña nga kookal ci 93 point 7 ci yoor yooru Kajoor waa kenn amul seen fay waa Mbombay séeréer ak waa ak waa Kër Baara mm-hmm. mm, waa Kër Baara ñu ngi leen di nuyu macha allah euh, communauté rurale Fandène mm-hmm. Ndiaye Thiam Krab du Ndiaye Ndiaye Thiam waaw euh, moom it ñu ngi ko nuyu di ko siyaar góor gi ci ko daan gëj naa koo gis waaw man dama koo gëj a sax ci ci mu woote ah xanaa dama ragal ne suñu tool ba ah suñu tool ba ah tool ba mu ñu fa joxoon da nga am tool ah Fatou yow suuf woon naa la ba dem góor ga ci ko daan commencé maa bàyyil di góor gi ca Koundanda lay bayal. doon na ma bayal de. xalaas ah surga laa fay rek. du ñàkk nga looy bañ yow. ah déet bu surga <laughs> dama ko jox ne ko wutal mu surga. ah ah waaw bu dee moom. dama doon bañ mu siw rek. doy na waar waaw euh, Pape Sénégal. waaye tool ba de bu dee da maa suuf rek mu am. Hmm. mu sotti de. Hmm, en tout cas xam naa ne góor gi ca Koundanda damaa xamul la ma ko joxoon daal lëjëm déet. Hmm. ba tax mu gëj koo dégg. ah doy na waar dina lëj de. <laughs> waaw mooy sa kuréel daanaa la ca kaw sara nuy naa la ziar la Euh, moom it démb rek mi ngi may woo. macha allah euh, waaye jotuñoo déggoo. Mhm. mi ngi wax euh, Adja Diawara gar ndakaaru maa ngi lay ziar. waaw mhm, mi ngi moom daa bëgg ñu may ko ci affaire bi waaye xam naa ni. Mhm. góob moom moo mën caa am léegi. man affaire la ci Adja moom bëgg na lu ma teg loxo rek mu teg ca loxo. Ah, non du mën a nekk ah, waaw waaw waaw waaye ah, moom moom du mën a nekk. beneen yoon waaw du mën a nekk. <laughs> ma bàyyi la nga tàggoo rek. waaw ñu ngi ciy profité di nuyu aussi euh, ñaari maire yoo xamante ne ñoom itam dañuy déglu émission bi. Hmm. muy maire Sarr. Hmm. Euh, di yaay ci euh, soxna Moussa Diabaxate. Hmm. moom itam suñu auditrice la ak maire Ami Diouf. maire Ami juuf moom yaay la ci suñu xarit Mouhamed la Dépêche point SN moom macha alla dafay déglu waxtaan wi di ko bàyyi xel bu baax a baax. kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñoom ñëpp di leen gërëm di kontaan lool ci interaction yi ak échange yi ñuy am ak ñoom di wax ne seen taxawaay rafet na daal. di leen dig daje incha allah altine si beneen numéro ak si yeneen thématique incha allah. Fatou defe naa ni fa ñu ñëwoon sa kër ga fële. ci jasab jasab waa jasab ah. waa jasab tamit dama leen di war di nuy defaat waaw waa jasab waaw ñoom war a nuyu wallaay parce que ñoom itam am nga fay auditeur ah, waaw waaw waaw waaw ñu ne ah kii mooy waa ji Pape waaw <laughs> ma leen baalu da ngeen a defoon ni màgget la muy wax mère Hélène mère Hélène mère Hélène <laughs> mère Hélène waa ji mooy booy bi de mère Hélène ak mère Anna Diop waaw ah, xam nga fàttee ko def rek mhm. mënoon na leen wax barki dem na leen feete seize ans ne leen booy la waaw wax dëgg bu ñu la gisee bañ am surprise. waaw li ci am développement di wax nee na nee na waa ji daa ñëw ne ko man daal man daal man daal paa bi neex na ma. mënu mhm. ko paa ban na. paa ban ci yow mi ah. <laughs> ma ne ko Thiam donc ko waroon a leeral nag daan ko 16 ans am nag wax dëgg yàlla. Ah, <laughs> <laughs> euh, xam nga mu ngi noonu euh, loolu mooy ci àdduna. Mhm. àdduna di weccante la. Mhm. weccante xalaat nan ko def doo gis nan ko waxtaanee lay laaj. Euh, man dama li ma mës a gëm mooy réew mi problème bi ñu am rek mooy lii farata. dañ ko dul jàngal nit ñi. fàtte ñu suñuy ay ay jamono loolu sax euh, maa ngi bëgg a wax suñuy jamono su ma ko waxee léegi dina weddiwaat sama bopp ñu defee ni mag laa. Mhm. waaye yéen seen jamono euh, boo xoolee samedi amoon na benn télévision bu fi nekkoon bu ñuy wax benn melo. Mhm. damay bañ a jaar ci tur ba. Mhm. maire baa ko doon woowee benn melo ndeysaan. benn melo par samedi doon nañ ca jàngale euh, première secours yi. waaw nga gis sapeur yi ñu leen di wane. ci émission bi bu nit defee accident. bu gaz tàkkee ci kër. yooyu mooy farata ci yooyu mooy faratim réew. mais télé yoo xam ne kundung kundung kandang kandang par six heures. faati sa xol day jeex boo jàppee suñu chaîne yi. man de wóor na yàlla léeg-léeg damay jàpp benn rajo mais ka fay nekk rek di animé rek man sama xol day jeex. ci wallaahi wallaahi parce que li muy wax en réalité dafa dul am benn solo. wallaahi ndeysa koy déglu léeg-léeg ñi koy déglu ñoom itam ñooy yem rek. wallaahi ñooy yem fa ñuy boxe. wallaahi nga xamante ne lii du loo xam ba njëriñ lay am si auditeurs yi te loolu vraiment nekk na loo xam dañu war a inverser tendance bi ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci médias yi dañu ko war a xoolaat parce que nekk na loo xamante ne daanaka askan bi soxlaatuñu loolu li ñu soxla mooy ku leen yee mais également kuy wax ak ñoom ci li xew ñu mën di am compréhension bu gën a aigu da ngay gis jigéen joo xam day xëy nekk këram ne ci waañam ubbi rajoom jàpp yooyu kundun kan dang kan dang topp ca woy mën ko mën a mën saar wu muy jullee sax mënu ko boo ko laajoon fara tey jàpp wala julli sax xamu ko waaw réew mi tey xeeti nit ñooñu ñoo fi dund nga gis nga gis euh, suñu télévision yi fàtte six heures non da nga gis télé yi ñuy bàkkoon naan ay première seen nangam ak nangam sàngam seen i ñàkk solo yooyu ñuy bàkkoon te amul solo euh, nga gis ay nit ñoo xam ni si ay góor yoo xam ni wallaahi comme ay góor jigéen moo tax am na yoo xam ne bu ñu koy kaas ci réew mi naan non da dañuy xeex nangam ci réew man leen yéen da di caaxaan rek mm-hmm. loolu la ñu xuus fii ci réew mi loolu la ñu xuus ci réew mi ay télévision mm-hmm. temps d'antenne yooyu amoon na leneen lu ci mënoon a xaj mm-hmm. waaw Euh, mu ngoog maa ngi lay bàyyi rek ba xam naa ne yow ba altine rek bu soobee yàlla jël nga weekend ci yor yoru kajoor euh, waaw jël naa weekend ci yor allah ci xibaar yi mu ngoog daañu fi bu soobee yàlla mu ngoog jërëjëf mu nekkoon soxna Faty ci xibaar yi leer te wóor macha allah tey oustaz Abdoulaye Diop euh, xam naa ni mu ngant la joxe woon na ko waaye nag euh, dafa bëggoon naa lool lool lool teew ca moo tax mënuñu ko woon a teel a siwal euh, ñu ko doon xaarane rek ndax waxoon na dina def kéemtalaay kàttanam euh, ba bu amee as porox ndoll su ndaw sax dina ca daal di xaj-xajal waaye nag xam naa ni mbir ma daa xaw a loolu mi nga ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax xam naa ni àndoon na ñun ak mboolem ñi nga xam ni woote nañu ci waxtaan wi àndoon ci ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax incha allah rabi ñi nga xam ni bëggoon na noo wootee te mënuñoo woote xëcc nañu ba sonn ñooñu cant ak na nga xamni ne ñoo sa su nek di andang ak ñun ci waxtaan wi di ñu gaganti lolit eh, dina ci bax amna ci solo ñu ngi leen di jaajëfal kum ci mën di doon daal eh, xeewuñu benn yoon seen i xalaat ñaan yi it ma ngay ñew ma ngay yexsi xewul ya ngay ñew di sawan bawan ya na yalla defal ñu jamm eh, ma dem te ñew alalu yalla la waxon nako ko ñaané ko sa borom ba mu boole la ci nga bok ci ñewat sant ko war la bur bi nga xamni su ko neexon ay mbër ki kër lay boole fel bu di deur te dee su ko teur ndax mom rek modi mbeur bur bi nga xamni kumu yëkëti nga taxaw kumu suufel nga daanu ku mu jàppale nga dem ku mu seetaan nga dikk euh, defe naa ni euh, loolu euh, mat na di bàyyi xel saa su nekk nañuy gën a dolli yërmande ji ci ñooñu réew mi te xam ni réew mi nanu ko def joo gis nanu ko waxtaan waxtaanee lay laaj sunu réew la Sénégal la ñun ñoo ko bokk da ngay gis nit donte sax sa noon la comme ni ñu ko waxee fii ci réew mi diw sama noonu la yéene woo ko musiba yéene woo ko safaan yéene woo ko lu mitti tey jii nit lu ngeen xuloo xuloo xuloo boo déggoon aw tiis wala aw nakkar wala mittit dal na ci kawam ndeysaan da ngay mel ni yow ci ci sa kaw la loolu dal loolu nag wane na ni ñun ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kon na nuy dëkkee di rafetal saa su nekk tey dimbalante ay ca mi ngoo ko ñu ngi nuyu bu baax te di ko jaajëfal moom Mouhamed Diop euh, kenn suñuy naataango borom la dépêche point sn euh, wax naa leen ba tey émission yi di leen koy euh, kar foofu di ngeen koy mën di amaat ah, di ngeen koy mën di amaat am na nag benn waaye démb Euh, laaj na ma nee na ma ma laajal ko Mouhamed waaye laaj boobu xam na ne ci suuf laa ko koy laaj waaye daal émission yi euh, yi nga xam ni moom ngeen déglu nii moom eur boo tàppee rek di nga ko fay fekk Euh, di ngeen mën a gis euh, jot seen waxtaan ak soxna Faty ak waa ji Pape ak mboolem ñoo xam ne rek euh, woote na nañu ci émission bi ñu nga ca biir ak ay xibaar yi leer te wóor daw leen gaaw ni mu leen ko waxee woon ngeen abonné bés ci bi nga xam ni lépp loo xam ne xibaar la tey tukkee foofee bu yegsee fasaasa rek ngeen tey daal di jot bu nee sax des na leen bàyyi ngeen wéyandi ak programme rajo bi waaye balaa boobee cant ak ngërëm ñeel correspondant yi ñu àndaloon nga xam ne ñoo leen di may seen émission waa Fast Track ñooñu la ñuy dem seeti te Je suis fatiguée. mon certain pour ça ma Le travail, la maison et le pire moi, j'ai tant de courses à faire.